الرحمة الأزيمة وسادت الناس كرب حسبي الله bàyyil ma xel hmm? rabbi sarax li sadri wa yassir li amri waxlul waxdatam min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum mbokki jullit yi asalaamualeykum mbokki taalibe yi noo ngi am mbégte dellu si waat ak yéen koy defee dimanche bu jot ci waxtu wi di ànd ak yéen ci seen émission diaspora fii ci rajo xasida online ci xarala bi sëriñ Modou mbay Thiam Baye Fall eh, ci beneen wàll wi seen mbokkum taalube am Mokhtar tal fële ca Parma eh, ci micro bi fii eh, seen su ndongo dem ba ja fii ci Pontedera ñu am mbégte nag dellu siwaat ak yéen di sant sunu borom moom mi nga xam ni moo ñu may Euh, wér ak fekkee ak tal euh, di ziar ñëpp te jiital ci ziar bi sunu yaakaar teeg ëllëg xalifatul am sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di ziar it mboolem kilifay diine rawatina seexi sëriñ tuubaay di ziar euh, sunu mbokk yi nga xam ni ñoo di waa axlul kitaab di communauté chrétienne bi nekk fii tey jii nekk feet ci ñoom mu di eh, Dimanche de Ramos euh, ñu xam ko ci italien ñu koy wax Domenica delle Palme euh, mu mel ni dimanche bi ñu jëm incha allah ci la seen feetu Pâques euh, kon ñu leen ci ndokkale ñoom it di ziar mboolem auditeurs u rajo Xassida online waaye di ziar sunu kilifa Serigne Mouhamadane Mbacke moom ak Ibrahima mu mel ni buñ leen joxe sunu ziar Euh, euh, mel na ni nuyu nañu rajo bi yëpp kon tey jii euh, di le 5 avril 2020 ñu fas yéene àndaat ak yéen ci beneen émission diaspora waaye eh, xëy na balaa maa dem rek di ziar mbokki auditeurs yëpp di leen souhaiter bonne fête de l'indépendance du Sénégal ndax démb lañ ko doon feete yàlla dogal tey ñu egg kon jaadu nañu souhaité comme mboolem sénégalais kon nag xam naa damay jox sëñ Pape rek euh, mu nuyoo ñu doog a dugg ci tomb tey bi sëñ Pape bisimilah. jërëjëf sëñ Pape auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bi nu yàlla julli ci sangu-sang yi euh, ñu ngi sant sunu sunu ay wayjur bu baax a baax euh, di la nuyu sëñ Pape di la bu baax. Eh, di jiital ci kaddu yi sëñ Muntaxa bashir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu ànd ak wér eh, di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom jàllale ko ci bépp kilifa diine ak kilifa aada mm, nekk Sénégal ak fu ñu mën di ne ci àdduna eh, di siar bu baax sunu jëwriñ yi di ci ne ci rajo bi di ko teg ci loxo sëñ Mahmadan ak sëñ Ibrahima ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk seen dëgër laay bu baax baax ñu ñaanal it sunu eh, technicien Modou Mbaye cham Baye Fall ñu koy ñaanal yalla mu may ko gudd fan ak wër ba li nga xamanteni yemb na ci ñun yalla katanal ko ba yokk eh, man-man gi di nuyu mbokk auditeur yépp eh, di leen wax ni namoon nañ leen di ci profito rek seigne Pape di souhaiter ñëpp bonne fête de l'indépendance ndax xam naa ni du ñàkk euh, daan ci def njàngat rek bu gàtt euh, ndax démb féete nañu fête de l'indépendance bi ak anam ba ñu ko féetee euh, di ziar ak ñaanal sama buntu ci Serigne Touba di Serigne Saliou Mbacke Darou Salam di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak wér Mbacke xanaa sëñ Pap delloo la kàddu gi rek di nuyu waa Parma di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax Euh, xanaa delloo la kàddu gi rek bu ko defee ñu jublu ci liggéey bi incha allah. jërëjëf jërëjëf sëñ Pape ñoo ngi fàttali auditeurs yi rek ni yéen a ngi déglu seen émission diaspora fii ci rajo Xassida online ci xarala bi Serigne Modou Mbaye Thiam xay Fall ci kàddu gi euh, sëñ Pape Mokhtar Tall ak euh, Pape Demba Dia fii ci Pontedera nuy ziar mbokki jullit yëpp rawatina sunu mbokki taalu bi murit yi Euh, di rafetlu nag bu baax kàddu yi ak euh, maanaam teewlu bi ñuy teewlu vraiment ñu ngi koy rafet bu baax maa ngi ziar sama xarit sama mag soxna asu asu baabu ndeysaan ziar mbokk yi nga xam ni daanaka saa su ne ñu ngi ñuy bàyyi xel soxna mu kewe maa ngi lay ziar di la souhaiter bon anniversaire euh, di ziar mbokk yi mbokk yi ñuy suivre ci rajo bi ndax Pape Mokhtar gis nga rajo bi daanaka léegi ak Facebook bi. nit ñi niñ ci amee accès euh, accès bu yomb dafay tax vraiment mm, dañuy gis euh, audience bi euh, ñi koy suivre am na solo lool mm-hmm. même podcast bi sax bu semaine bi weesoo da ngay gis ni wax dëgg fa yàlla nit ñi bàyyi xel ak commentaires yi lay yónnee ci semaine bi loolu lu am solo la may fàttali rek ni depuis dimanche mu mënees naa woote à travers Telegram xam naa Baye Fall dina ma dugalal numéro bi di nit ñi nga xam ne mënuñu woote ci Skype mënuñu woote par Telegram kon nag mbokk yi ne loolu na ngeen xam ni eh, eh, leneen lu yokk la ci ci rajo bi eh, di di mën di interlocuire ñun ak yéen muy ziar sama mag Sanjeri Pape da lay nuyu bu baax. Ah, Sanjeri nekk Parme ndeysaan sama mag la. kooku ah, moomu yar man moomu yar <laughs> xam ne xawante nañu bu baax. ndeysaan dañuy suivre saa su ne <laughs> def ñu suivre saa su ñu ziar sunu sunu xarit papis tamba moom it ndeysaan ma nga sénégal waaye daanaka daf ñuy bàyyi xel di ziar eh, soxna yi nga xam ni léegi rek mm, ndeysaan ñoom it dañuy ànd ak ñun di ñu accompagner soxna selli eh, soxna ñoom ñoom faatu mbokk yi nekk ci kades yépp ñu ngi ñu ziar di di rafetlu seen taxawaay ndax jamono ji vraiment Euh, ñi nga xam ni dañuy yëngu pour émigré yi war nañu leen di jaajëfale saa su ndax nag seen taxawaay euh, matuta xeeb jamono jii ñi ngi def liggéey am solo ñi nga xam ni ñooy nekk front office ndax dañoo toll ci jamono joo xam ni daanaka benn office liggéeyul euh, pour nga gis nit ku ñuul mën a taxaw di woo tubaab lu jafe la man mën naa ni ba deux minutes avant may ba biñ may woo laay doog a wàcce sama téléphone maa ngi ci téléphone bi di wax ak ay nit léeg-léeg am na sax soxna su insisté ma ne ko dooma dimbali ndax dama war a dugg ci dama war a commencé émission euh, te it euh, li tax ñu koy def mooy ñu ci bari euh, dañuy jaaxle ndax nag nit bu amul fu mu teg tànkam dégg ni mbokkam mi nekk nag ci koo xam ni am na yaakaar ni bu demee ci moom li mu koy laaj dina ko mun a tontu loolu dafay nekk une bunt benn une porte boo xam ni wax dëgg fa yàlla Euh, mate sute tey kon nag bu ñu amee ñu leen di déglu di leen tontu di dalal seen xel ñooñu ñu mara ñu mat sant lañ wax dëgg fa yàlla jamono ji Italie macha allah yaatu na yaatu boo xam ni dëkk boo dem léegi presque ñu ngi commencé bari ay représentants ak ay responsables yoo xam ni yàlla def na am nañ ay formation ci dëkk bi ba wax dëgg fa yàlla nekk nañu ay nit yoo xam ni euh, euh, mat nañu lañ leen di teg ndax fa ñu nekk de. ñu ngi fay occuper place boo xam ni daanaka waxuma sax sénégalais waaye uten sa bépp euh, doomu aadama bu ñëw la soxla dinañ la ci taxaw loolu nag lu mat a sant yàlla la te di leen jàppale di leen yombalal liggéey bi ba ba ba seen liggéey mën a yomb euh, taxawaay bi mën a gën a mën a gën a kawe ba ba liggéey bi gën a mën a sell mu mel ni pap tey jii mm-hmm. mu ne suta tàmbali te waxuñu tuuti ci li ñu ubbee mu di suñu indépendance bi ndax juroom benn fukki at euh nit ku ko dund wax deug fa yalla nak war ngaa mën a euh, euh ndax daanaka euh, bu budé bu nit la juroom juróom benn fukki at mom commencé na màgget budé italie daanaka bu défé juroom at mënees suñu ko mm-hmm. euh, ni na cee mën am jàngat waaye nag dana doy waar de pap ndax indépendance dugg juróom benn fukki at yoo xam ni euh, daanaka mën naa ni sa dëkk moomoo fa dara amoo moomoo say koppar yoroo lenn loo xam ni tey jii gis nga sunu situation boobu euh, ñu nekk ci wàllu santé ku fa feebar ba toll ci diggante buñ la génneewul yóbbu la Europe boo matul da ngay faatu loolu nag xëy na lu mat a jàngat la tuuti ndax maa ngi koy wax sànq rek ci benn live bu ma doon def di wax ni man di gëm naa ni Euh, yàlla du wàcc nattu par hasard euh, coronavirus bi euh, mën na nekk nattu ci àdduna bi waaye mën na nekk opportunité tam ci Afrique ni muy hmm. nekkee opportunité ci Afrique mooy jamono ji nga xam ni hmm. daanaka capitalisme bi mi ngi mi ngi trainé di waaj suux Afrique hmm. nag war na mën a proposer lu bees loo xam ni xëy na mun na nekk. une alternative waaye nag mu mën ko nekk il faut ay nit yu crédible ñoo ko war a def waaye nag boo mm-hmm. xoolee jëmm yi nga xam ni ñoo ñuy représenté euh, jëmm yi ñuy représenté ah jëmm yi tey xel lay ndax euh, li tax moo koy wax mooy bërki démb damaa gis benn docteur bu jóg wax benn wax euh, ñëpp Afrique ñëpp jóg indi ñëw ci ëllëg sa mm-hmm. mu jógaat wax ni dañoo Euh, eh, dañoo modifier ay waxam te daanaka Afrique loolu la ñu baaxoo mu mel ni suñu leaders yi daanaka léeg-léeg doo leen comprendre du ñu nekk ay leaders yoo xam ne dañoo ay vision ci nekk rek da jóg am koy bayal nekk ci nekk surga benn kilifa wala benn nit loolu nag bokk na ci li nga xam ni moo nekk frein wu Afrique waaye tam ma gis ci ay ay ay yëf yu positif ndax Afrique daanaka boo ko xoolee léegi seen jeunesse bi. nekk nañ jeunesse bu nangoo ñafe donte amuñu ay moyens. di hmm. di créer ay innovation maa ngi koy wax rek tey jii maa ngi xool école polytechnique bu Dakar ñu ngi créer ñu ngi ñu ngi defar par exemple liquide liquide hygiénisante yi nii defar nañ ci plus de mille litres jox ko do do euh, euh, donation. ministère de la hmm. santé. ministère de la santé sax dellu si joxaat leen subvention wu cent millions. tey jii ma gëm ni euh, agence yu mel noonu tey jii.

Eh, boo xoolee eh, njàngat bi nga xamante ni def nañ ko ci feebar bi mooy ne que nañu xool rek ñun ci suñu bopp fii ñu nekk nii fii ci Europe <coughs> ndax boo xoolee eh, am na ay ay ay ay jumtuwaay yoo xamante ni muy italien yi wala muy français yi dañu koy commandé ci yeneen dëkk yeneen dëkk jaar ci suuf nangu ko ci ñoom ba nga xamante ni daf leen di daf leen di delloosiwaat ci ñoom dañuy obligé sax euh, gëm ni la la ñuy uti feneen <coughs> euh, mën nañ koo mën nañ koo defar fii fii ci réew mi da ngay xool problème masque yi yi euh, italie laata mu doon am ay ay yenn mascarine ak yu ni mel il a fallu que yenn médecin yi nga xamante ni dañuy jóge ci yeneen dëkk ñoom ñoo leen koy indil Euh, ñu chargé ko ci ay avion cargo ak yu ni mel am na yoo xamante ni sax dañ koo dévier far yóbbu ko ci yeneen dëkk. dëgg léegi lan moo ca mujjee xew. Euh, mhm. payeurs yi nga xamante ni ñoo fi doon produire leneen ak leneen ñoom ñoo obligé euh, ba ci Armani Armani sax proposé na moom industrie am xam day defar ay costume ak ay yoy dem na ba proposer industrie di euh, defar ay ay masquerine mhm, mhm. parce que euh, decreto cura italien bi ben instant biñu gisé ni même société yi am problème euh am yenn jumtuwaay yi mhm. dañoo obligé ni dañuy def ben déroga par rapport ak masquerine yi ñi def ci communauté européenne donc il faut que

Tay, patron bi nga wa ila kilifa gi nga xamanteni febar na yenn febar yi senegal mo ak euh, ki nga xamanteni new ji doole la ñom ñoo yam parce que mënul genn sax pour dem faju ji hmm te gis nañ ni deug deug tay ji ñun ñep ñu ngi soga rendre compte ci suñu système sanitaire euh, et efficience bi mu am duñ ne euh, suñu système sanitaire baaxul dedet mais da ngay xol un mois ak léegi bi fa euh, yëf yi parce que le 2 mars la ñu mon premier cas bi. hmm jii tey le le cinq donc romb nañu weer. mais ñoo ngi yem ci 200 cas yo et quelques cas 222 mais mais pas. Pape. Hmm? maa mais dina la wax benn attention de tey ci nag bu baax Pape ndax est-ce que xam nga hmm? conférence ministre bi lu muy def. xam nga ñaata hmm. ñaata test def par jour. Mhm. tant que dénoncer la cause, il y a 100 tests par jour. Nous mm 200 tests par jour. Mhm. Et, c'est tout à fait normal. Vous avez fait sur 100, 10%, ou 1%, du rhum donne, C'est tout à fait mhm. normal. Nous, nous, Sénégal, on a ce problème. cette année, ben live, vous m'avez Problème, bon, vous l'avez parce que nous, Institut Pasteur, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai autorisation pour tester lolou déjà ci walu indépendance rek nek na ben ben frein bu yéeme parce que buñu né ñun ñoo mom suñu bop institut Pasteur mm. nek une institut étrangère ñu am des mm. personnes de renommée comme professeur Mboub Sida ñëpp xam xam xam mm. am ay ay ay scientifique yo xamni ci mom lañuy liggéey une équipe bo xamni tay nous ñoñu des gens qui leen joxone rek ñu def test war nañu mëna def mille tests par jour mais le Sénégal ne fait que 100 naa naa dép naa jamais dépassé 200 tests par jour maa ngi jégalu nag ci dagg bi ma la doon. Euh, ci la bokk mais xam nga cest bu fekkente ni dañu bëgg aussi euh, méngale ñaari na xaw a jafe na xaw a jafe trop parce que tey jii fii Italie marché yi dañ leen a arrêté Sénégal marché yi arrêté wuñu leen. Mm-hmm. Euh, euh, Sénégal euh, ngi gis borom njaboot goo xamante ni dëgg-dëgg dafay génn di uti pour lu mu dellu ci kër gi joxe joxe dépense su ndékki soog a dem dem li jënd ji añ bi te fii fii bu jaaykat jaaykat bi sax bu génnee moom li jëntiwul ndékki lu mu dellu siwaatee ci kër gi mais day ut li moom lu mu ndékki jee ak lu mm-hmm. mu lu mu soqi ko ci bis bi mm-hmm. mais le système Sénégal euh, le système sanitaire sénégalais système ay été lañu parce que euh, man damay waxtan ak ben médecin il m'a fait savoir que ni ñom li xam ñom ci ay affaire de virus tubaab yi xamuñu ko parce que xeyna y a un défaut de communication parce que il m'a fait savoir que dans le nord ñom dañuy découvrir ay virus yu doy war yo xamanteni dañ koy traiter tranquillement y euh, a jib mm-hmm. kenn ko xam virus la mm-hmm. euh, virologue yi Sénégal euh, ak médecin yi Sénégal c'est vrai defuñu plus de tests mais je pense que ñu ngi contenir la maladie aussi par rapport ak ak ak situation bi fii mu il y a un mois, bi mu un mois yi mille mm-hmm waaw donc cela veut dire ça veut ça veut dire beaucoup de choses parce que xëy na Sénégal ñu ngi def yenn traitement yo, xamante ni xëy na bëgguñu ko fésal. dëgg la parce que euh, c'est un moment délicat aussi pour nga fésal yow lan ngay fajee ni. surtout surtout sax euh, lépp dañ ko def euh, sur les lenti ingrandimento ak médias yi ni ñuy yokkee boo leen xoolee problème mu Didier Raoul bi professeur Raoul. voilà hmm. voilà. déjà xam nga problème di dijee rawul ñëw na taxaw ñu ngi naan chloroquine ñi naan danga ci boole lale ñenn ñu ñu ngi naan Sénégal xëy na suñu docteurs yi dañuy jàmb ji njeer ak yeneen ak yeneen xam nga euh, c'est-à-dire euh, il faut que mu am aussi benn réserve euh, médicale parce que mhm, mhm. réserve surtout ça pap ñu ngi def mhm. traitement yooyu mais en aucun cas comme li ñu doon wax sànq rek il faut que dëkk yi gëm seen production locale Nous, bu dee mbay. Mhm. am nañu lu nu bay mën nañoo bay mhm. euh, produits ñuy à l'extérieur mën nañ Sénégal mais loolu dafa laaj aussi que le gouvernement def un investissement dans le domaine de la transformation parce que nous avons ay produits produits mhm. saisonniers lañu. war nañ ko transformer pour mhm. def ko leneen ak leneen pour que nit ñi mën ko continuer di ko consommer di ko jariñoo du ma guddal damay bàyyi rek nga dalal soxna waaw xam naa xam naa foofu sax lay dem balaa ma jox soxna ma rem parce que euh, tey ji dañ ko delloo si waat ndeysaan euh, <laughs> soxna ma rem maa ngi lay jaar baax euh, delloo ziar dalal rek di la xamal ni mm, ñi ngi tàmbali émission bi waaye dañuy tàmbalee rek ci njàngat bu ñuy def 60 ans d' indépendance 60 mhm, mhm. ans yi nag Euh, xëy na euh, mën naa ni euh, luñ ci mën a wax bari na donte ñun ay xale lañ am na lu ñu fekkewul waaye tey jii fi adduna toll est-ce que jaaduwul ñu def benn virage ndax tey jii buñ nee trente ans d'indépendance boo xoolee daanaka ñun suñu culture bariwul loo xam ni tey jii mën nañu taxaw ni lii ñun ñoo ko moom sunu indépendance ñun ko ñun ñoo ko ñun ñoo ko ci gagné tey jii boo xoolee ba ba ba ci wàllu éducation wàllu santé lu bari mënees na ko wax rawatina sax jamono yi maa ngi maa ngi wax ni daanaka tubaab yi dañu dem ba nga xam ni sax euh, dañuy contrôlé ba nga xam ni euh, li war a sax ñoom ñoom ñoo ñu koy may jamono ju mel nii nga xam ni tey jii euh, maa ngi koy wax léegi Pape ni ko man dama gëm ni corona bi dafa war a nekk ñun opportunité ñun mais boo xoolee dafa mel ni ñun Sénégal.

le modèle de développement lan moo baaxul ci suñu société ci wàllu diine bi dafa mel ni sax diine fi mu dañ koy bëgg a fàtte parce que bu ñu demee ba tëj jumaa yi te li nga xam ni mooy foog yi dafa nekk priorité ban jàngat nga am ci 60 ans d'indépendance yi soxna Mare. waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu nekk ci plateau bi di nuyu waa rajo bi parce que en fait seen yi jàpp moo ko mais ku ci nekk rek maa ngi lay nuyu di la ziar. mais Pape avant de venir poser li question bi Pape poser je pense que ça c'est 60 ans d'indépendance, yi parce que ce sont des tarifs yi nga xam Sénégal parce que tu consommes local bi laay njëkk a parce que moi je pense que que bu toll au Sénégal vraiment si suñu doon consommé local jàppale ñi nga xam ñom ñoo nekk biir Sénégal muy euh, les petites et moyennes entreprises ba ba ci nga xam sax xalé bi nga xam sax dafa jog am ay initiative am rek créer lo xam nit ñi mën nañ ci japp bu ci ñepp jàppoon man je pense que tay jii bu ñu tollo ci problème confinement wi wala confinement non dinañ am lo xam ñun mën nañ ko consommer suñu bop ñoko liggéey suñu dëkk ba nga xam duñu xalaat ne dañuy am problème pour nit ñi duñu lek wala duñu naan wala xif dina ray nit té ci bir lolu lutax ma wax ko parce que en fait gis nga bi ñu commencé ne nañuy raxas loxo yeeg nañu wut système boo xam ne ku raxas sa loxo ba pare doo contaminé ndox mi wala keneen du laalaat ndox boobu ak yooyu gis nga jeunes yi fi génn ay xale yu ndaw ñoo xam ne ñu ngi defar ay maanaam genre robinet yoo xam ne ak ay produits locaux lañ koy defaree parce que bërigo bu jeex la ñuy jël jël seen benn robinet monté ko ci créé loo xam ne vraiment nit mën mën na dafa dafa sax rafet déjà c'est tellement beau à soo ko xoolee dafay rafet nit ñi mën nañ ci raxasu kenn du konta ndox bi kenn du ndox mi ndox ki njëkk a raxasu ndox boobu du laal kenn te loolu c'est parce que ça veut dire que ñun am nañu ay ay ñoo xam ne seen xel mi ngi màcc am nañu ñoo xam ne xariñ nañu donc loolu nekkul lu ndaw loo xam ne dañ ko war a xeeb dafa nekk loo xam ne dañ ko war a promouvoir le consommer local te loolu suñ ko defee daf ñuy jàppale ñun

le sénégalais n'a pas de priorité parce que dañuy xey tay kenn wax li ñu commencé jëm jëm jëm na ñepp jog attaquer ko ko jëm nañ ci lool té loolu distraction la té dañu tollu moment bo xamné on n'a pas besoin de distraction parce que liñu ñu jankontel comme li Macron wax c'est une guerre donc yow boy dem guerre tu dois être prêt amul lo xamné dafa la wara distraire té ñun nak moment bi lan moy suñu problème moy amuñu amuñu amuñu amuñu priorité té nak nit ki dem un plan d'action dégager sa ay nga étape dem parce que vraiment la santé comme les Pape Sénégal vraiment on a vraiment de des médecins yo xamné machallah parce que nous nañu luñuy def xam nañu Pape li nga wax sank deug gu la ñun ñaata virus au Sénégal mm-hmm des milliers et des milliers de virus parce que dafa nekk loo xam ce sont des maladies yoo xam Afrique la am dalul le peuple européen. Mhm. parce que ña koy détecté Afrique la ñu nekk moo du am tolé mhm. mais tey jii ñun amna waxuma la sax coronavirus mais amna na façon virus yo xamné ne tey buñ ko jankonté won ak mom sur le plan mondial ñu xamné ne africains ñoo leen mën téméré junni yoon. Mhm. parce que loolu lañu jankonté tous les jours ce sont les problèmes de santé de tous les jours suñu médecin yi di jankonté ak ñom di ci génn haut la main te loolu jëmul kaw jëmul kaw encore une fois parce que c'est l'Afrique mhm. Fofu, malaria bu amé, benen fièvre bu amé, lenen lu ñëw épidémie su ñëwee c'est vrai que ça tue beaucoup de gens mais ñom dinañ fexé ba canaliser ko mhm. Té lolu lan lay wund moy que né ñom ils sont tellement braves dans leur domaine ku nek rek domaine bi nga nek yaa ngi def li nga mënd ci ñafé. Mhm. Té tamit limay wax toujours rek nañu nañuy sensibiliser nañuy nañuy consommer local mais tamit nañuy les jeunes yi nek sur le terrain parce que par exemple mon na len do ben exemple bo xamné vraiment sama sama sama sama tapé à l'aide daf daf ma sax choqué à la limite parce que c'est une jeune fille de rien du tout qui s'appelle Sophie Gay je pense que les ñep yéen ngui suivre ci Facebook peut-être amna ñu ko ci xam amna ñu ko ci xamul mais fay dimbali les les les les les ndongo dara je la suis je la suis je la suis. man je la suis mais elle est tellement jeune daf may rappelle, daf may rappeler man ma jeunesse parce que. dafay def souvent ay ay live ça, pratiquement. non day def ay live mais dois-je me rappeler quand j'avais son âge mais elle est déterminée engagée. Comme mhm. les mouy def elle ne recule jamais elle se fixe mhm. des objectifs te xale bu ndaw la. bien sûr Tu dugg ci daara yi di créer euh, un sénégalais un masque. dem mhm. un tailleur boo xam ne daf ko dem génne tailleur bobu koku defar ay masque ñu dem jël wa 3D ñoñu di len jappalé ñu dajeeg un médecin médecin bi jël masque bi xol ko ne ko baax mais on peut l'améliorer mhm. jël masque bobu diko améliorer diko améliorer ba nga xamné masque bobu tay un un médecin qui est en contact avec quelqu'un qui est qui est contaminé mën nako sol mais c'est un travail à saluer mhm. genre yoyu mo jara dimbali parce que elle est partie de rien du tout amul ay moyens amul dara

dans moins d'un mois, tu les verras d'or. Parce que la peine ne sera pas exemplaire. Mm-hmm. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a mm-hmm. besoin de, de, de, jeunes comme Sophie. Ils ne se droguent pas. Ils ont la, la, la tête sur les épaules. On a besoin de ça. Mm-hmm. Il faut que nous nous Le consommer local, il faut que nous apprenions ñi nga xamné vraiment ñom ñoo nekk Sénégal di di di def ay liggéey ndaw petite et moyenne entreprise même une personne peut xamné un projet sax dañ ko même pour des projets qui sax 25000 francs parce qu'il y a des jeunes qui sont partis de rien Il mm-hmm. y a des jeunes qui sont partis de rien parce que tu bu ñuy wax indépendance 60 euh, ans mais je dis 60 ans de dépendance je dis 60 ans de dépendance mm-hmm. parce que waron nañu weesu suffi. Mm-hmm. waron nañu weesu fi di dem je ne du ma jël la faute di ko teg ci kenn parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu mais liy defar Sénégal ñun ñëpp xam nañ ko mais li may waxaat encore une fois mooy le sénégalais n'a pas de priorité lu ñëw lu ko lu ñëw fëkk ko yóbbu tey ji dañuy commencé wax dara ñun ñëpp ñu wax ci impliqué wu ñu ñëw distraire ñu avec d'autres choses ñu ñëw jàpp ci loolu même le cas des vaccins moi je trouve que vraiment c'est un faux débat c'est un de débat dans la mesure où ñun xamnañ nañ ne bépp organisme extérieur bu ñëw dugg sa dëkk ne daf fay def dara ce qui est sûr mooy dafay passer par le gouvernement qui est en place donc les gens sont tellement éveillés que tay je pense que sama xalaat bu gàtt je pense que muy le président de la république muy ses ministres kenn tey xelam warul xalaat jël benn organisme extérieur di ko indi Sénégal naan ko ñaqal kii ak defal lii mais les gens ne vont plus l'accepter les gens ne vont plus l'accepter nit ñi dañu yeewu léegi mënatoo dugg même dans le village le plus reculé il y a un jeune homme xam ne la rebelle donc les gens ne vont plus accepter ces choses là dañu bàyyi ba le pro duñu xaar nag ba le problème posé wu ñu régler C'est vrai que débat bi posé nañ ko ku nekk wax ci mais man je trouve que c'est un faux débat et ça nous distrait aussi parce que loolu kenn xalaatu ko tey ji Europe amul jotu Afrique taluñu ils ont d'autres problèmes ils ont d'autres choses à fouetter parce qu'ils ont des milliers de morts dans les bras donc l'Afrique est le dernier de leurs soucis est le dernier de leurs soucis mais nous ne pouvons pas non les scientifiques qui ont eu cette discussion mhm. ça a été une discussion réelle à la LCI Mm-hmm. Euh, par rapport à, à, disons, à, au type de thérapie à prendre, c'était pas quelque chose d'officiel, officiel, mm-hmm. mais ils ont dit que ils envisagent de d'essayer de, le vaccin parce que le vaccin, ñom yo xam nga vaccin bi amna donc euh, test donc le, problème c'était là où euh, euh, fan lañu mëna par rapport à lolu euh, moi, pas... parce que déjà, madame attends, mm-hmm. je ne sais pas si tu as entendu, il y a, y a le responsable médical euh, mm-hmm. euh, congolais, le professeur congolais, qui, mm-hmm. s'était déjà déclaré disponible pour, le, pour le Congo. mais hier, il s'est contredit parce que, euh, avec la, la, vague d'indignation qui, qui s'est produite hier sur le réseau, par exemple, personnalité africaine je dirais bien la jeunesse parce que man y a quelque chose qui me surprend c'est le mutisme de nos leaders. non mais mais mutisme parce que le ministre là il a intervenu sur les vaccins. le ministre de la santé j'ai entendu sa sortie, c'est dans Nako. si na il s'est déclaré wax d'accord. mais Marem, tu sais tout le temps en Afrique. Mhm. Euh, toujours des et des nuits colérées qu'on il fatos, déjà computer. Mm-hmm. Euh, euh, xam nga euh, problème vaccination au Kenya en 93 mm-hmm. jusqu'en 96 il y a eu une campagne de vaccination en xamni les les scientifiques kenyans mm-hmm. ont dénoncé une manipulation bu OMS défon pour stériliser les femmes kenyanes. et au Nigeria il y a eu ce même problème donc lolu mo indi parce que nak gis ngeen ñeen ñep xew-xew bi am gars le di di joy di di inquiéter wu ci peuple africain yi li ñuy amé doom yu bari lolu indi na problème entre l'Afrique et l'Europe l'Occident et il faut pas le nier c'est un problème non mais c'est une évidence lolu kay bu xewee aussi des fois à travers ces canaux là dañuy profito di on dit pas de s'alarmer mais d'être euh, à nos gardes pour pouvoir. waaw mais Pape loolu laa lay wax xam nga ñun on a été distrait te loolu il faut ñu nangu xam nga lu tax xam nga moment bi pandémie bi fi mu toll nii. Mhm. médecin toog wax loolu ne dañuy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dem essayer yi en Afrique mën nañu am foofu des prostituées mën nañu am foofu parce que ñoom duñu sol masque duñu sol lii duñu sol la. wax ñu wax sen ay wax mais loolu xam nga loolu il faut être idiot sax pour le faire et le dire moment pandémie bi ñu nekk. Mhm. ça veut dire que ils l'ont sciemment fait pour nous pour nous créer une distraction ils l'ont fait sciemment parce que nous nous ngi ci moment pandémie Europe donc si nous sommes dans leur jeu mhm. la révolte populaire réaction je suis entièrement d'accord que peuple bi une réaction parce que loolu nous ñun nous, nous, nous suivre donc ñoom ba tax ñu dellu ba tax ñoom au ñu dellu ginnaaw wala beneen président mais le président du Congo loolu moom bu ko waxee sax moom ça n'engage que lui xam nga léegi tey ji nekk président taxul yow nga wax loo xam ne yow da ngay engagé peuple bi parce que peuple bi moo gëmatul ay président mhm. xam nga loolu yow président mën nga jël sa décision wax lii mais peuple bi moo war a suivre te peuple bi bu suivre xam nga loolu du am mhm. léegi moment boobu la ñu toll parce que en Afrique léegi il est temps que léegi nit ñi le peuple mu jël ay destiné boppam té destiné bopam yoy moy ñi nga xam ne gouverner fekk ñun ci luñu bëgg luñu bëgg le développement réel vraiment de l'Afrique mm-hmm. le développement réel de l'Afrique ne peut passer que par son peuple son mm-hmm. peuple moyen, le le le le paysan son peuple moy la ménagère son peuple moy l'étudiant l'élève ñoñu ñoo représenter le peuple mm-hmm. donc ñoñu une réaction c'est à tenir en compte té tay ji président bu ko tenirul en compte tu ne dures pas président bu tenirul en compte le peuple mais tu ne peux là loolu c'est réel. c'est réel. dëgg la dëgg la xam naa xam naa dafa mel ni sunu sunu jëwriñ sunu kilifa yegg si na sëñ Mouhamadan mi ngi ci mi ngi ci gis naa mu dugg euh, ñu dalal ko doog nag laal lii nga xam ni moo di thème émission bi jëwriñ salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Pape. jërëjëf eh, jëriñ Mbacke ñu ngi ziar bu baax na moon nañ la de. Ah. xanaa ñu ngi lay ñu leen di bëggee bu baax a baax kay waaw. ñu ngi lay bu baax Mbacke. ñu ngi leen di namm lool te di leen bàyyi xel yéen tam. jërëjëf mhm, Mbacke jërëjëf. xelan ci yéen foofu ngeen nekk ci diaspora bi yëpp. Mhm. bu rafet bi nga xamante ne it moom ngeen di def boobu ba léegi. Mhm. Euh, bu nekk émission bu nekk ñu ngi koy ci wër di ko déglu dara rawuñu ci. yaak euh, sëñ Pape Makhtar. Hmm. ak ak ak soxna so soxna soxna Mariam soxna Mariam. soxna <laughs> waaw parce que aare moom itam bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf delloo ziar jërëjëf. rafet na trop waaw waaw. Eh, sëñ eh, dafa mel ni liggéey bi moom. Mm-hmm. yéene biñ ci amoon ba taxawal ko dafa mel ni yéene boobu àgg. Mm-hmm. ndax bis bu set. numéro yi ñu ngi koy xam. mu mel ni kon yéene bi ñu ci amoon mooy nit ñi a koy bàyyi xel ci gindi ko mm-hmm. rawatina nag euh, li taxoon ñu samp ko mooy diaspora bi ak yéen ñi jullit ñi mën di ci gindikoo ba kenn ku ci nekk boo toogee sa kër nga xam nan ngay toogee sa kër kon dafa mel ni liggéey boobu rafet la boo xam ne wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañ leen ci encouragé xam ne senegal moom am nañ lépp dégg naa ci ko léegi Sénégal am na lépp Sénégal bo déggee ñu naan am na lépp mooy boo man di gis rek mën naa yor réew mi benn muy boroom yëpp bàyyi ne ku am waaye xel gis ne sénégalais yi yéen ñooñu rek tey débat yi ngeen di tër soxna si wax na ko léegi su fekkoonte ne bàyyee woon nañ leen ko dafay mel ni bu ci nit ñëpp jaar ay réew mi doo am ay jafe-jafe doo am ay problème ka Europe tey yoo xamante ne tey rek leen ngeen te bu fekkonte ne nit ki day génn ci biti mono yi ñu nga xam kenn mënut génn ci biti yaakaar naa mu jaaroon yoon boo ci lay jaar ba rek ne ko mhm. ñi ngi seen kër mhm. situation bi garaaw garaaw ñu koy rek paa ah, bala may dara rek nga may ma mhm. ndokkel sama mbokki diaspora bi yépp ndax man ci ñoom man dama leen di wax ne leen man duma ab sëriñ ne di leen laaj addiye mais man damaa bokk ci ñoom parce que sama derete bokk ci ñoom yàlla dogal na yàlla dogal na ma nekkoon ak ñoom daan dund ak ñoom ba yàlla dogal ma ñibbi si Sénégal nekk ci ñoom nekk rafet boo xamante ne eh, ku xamul li ñuy daj man xam naa li ñuy daj ku xamul man xam mm-hmm. naa ko parce que mm-hmm. wax sama émission bi passé ne naa leen Sénégal bari na lu fi taxaw loo xamante ne tey doomu italien moo ko tabax wala doomu France wala doomu Amérique wala doomu Danemark wala doomu Espagne wala doomu ku nekk ci àll bi tey tabax boobu nekk biir Sénégal ba ay nit mën faa suturlu ci dëkk yooyu la ñu dem jóge fa daan doole ba tabax ko bari na kër mhm. sëriñ bu tey jii boo xamante ne taalib yi nekk ci àll bi ñoo àndandoo kilifa googu ba tabaxal ko loolu mu tabax muy mhm. jàkka ma wala muy kër kon mën naa ne gàcce ngalaama waa diaspora bi gàcce ngalaama ñi nga xamante ne ay doomi sénégalais la ñoo xam ne bëgguñu kenn ku leen toroxal ñu génn ci àll bi siggal Sénégal fu ne nag kon mhm. tey fu ma déggee tey ci bi feebar bi tàmbalee léegi dama daan damay doon am aw naqar waaye damay bëgg ndax damay xam ne nit ku baax rek la ñuy waxal. Mhm. damay xam ne nit moo tax kon gépp kàddu gu mu mosaan dégg mu dal ci seen kaw. kàddu googu dafay mel ni man ci sama kaw la dal mel ni man man mennu man kese lañ ko yanu ma yanul leen ko. Mhm. te it mu wees toll ci man ndax damay xam ne wuti doole ak bañ toroxtaange rek moo leen taxoon a jóg. Mhm. kon gàcce ngalaama ñoom ñëpp yal na leen yàlla sàmm. yal na leen yonent bi sàmm. nekkoon yépp ba lii jeex bañ delluwaat ci nañ nekkoon kenn ku ci nekk mën a delluwaat ci say liggéey kenn ku nekk mën a ñëw ci say njab moom la neexee ñu ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla def amiin Mbacke allahumma min allahumma min ci ci thème boobu ngeen ci thème boobu ngeen di wax sëñ Pablo tout ko man euh, bala ma ciy wax dara damay wax ne gàcce ngalaama docteur yi nekk Sénégal parce que Pape Pape Mokhtar mm-hmm. wax na ko léegi gis nga lu difficile la gis nga docteur yi nekk fii sëñ Pape soo mm-hmm. ñu bisu woon hôpital ba dugg ci biir hôpital yi centre de santé yi tey ñu ne état bi lii la leen jox ngir ñu faj nit ñi bu boobaa da nga gërëm docteur yi mhm, mhm. kon ci biir hôpital yi ba gis matériel bi ñu am néew gi mu néew ñàkk gi mu ñàkk matériel bu ñàkk solo nga dugg ci biir dispensaire yi nga ne tey hôpital bi nit dana fi dugg wér da nga gàcce nga laamal docteur yi mhm. parce que da nga xam ne seen xam-xam moo leen dimbale ba tax ñuy faj waaye amuñu dara luñ mën a loolu loolu mm-hmm. defut ki dara moo tax boo dégg nga naan eh, ma dégg tey nga ne indépendance man damay rus damay am kersa. Hmm? damay am kersa parce que man pour man fi toll li ma jàpp fi nekk sama kër ba léegi. Hmm. ñun amul indépendance amul ko pour man loolu laa jàpp. Hmm. ndax li tax ja amul gis nga ñun bi feebar bi door a dugg man bind naa benn lettre boo xamante ne envoyé naa ko présidence. mais doo xam ba xam jot nañ ci wala jotuñu ci parce que fullaal ci li ngay wax gis nga. waxtaane leen li ñu waroon a tàmp bi bi li mu waroon a dégagé bi la waroon mm-hmm. ñu nekk ci réew mi te ko liggéey muy tailleur yi ñu fexe ba mobiliser leen mm-hmm. ñu ñawi maas fi doon bay ñu nit ñi dellusiwaat ci lekk dugub mm-hmm. maa koy wax sànq fii ci biir réew tey lañ doon jënde ab ceeb wala di ko commandé feneen mënoon nañ koo commandé dugub nit ñi togg ci ñalang togg ci kere man koo lekk nit ñi dellusiwaat ci consommé sénégalais. mooy suñu wér gu yaram sax. dégg nga tey mën mënoon nañ tey yére yi nga xam ne ñu ngi koy importé ci àll bi ginnaaw problème am na état bi mënoon naa jël décision tëj lépp tey yére yi ñuy defaree fii Sénégal mooy suñu négoce yi tiise yi ñuy defaree yi der bi ñu fi defar dàll yi ñuy sol tey mënoon nañ cee profité mën nañ cee profité ba exploité ko jariñoo ko. Mm-hmm. Mm-hmm. yooyu yëpp bind nañ ko ci ay lettres yu yëpp ne leen moment la boo xamante ne moment bi ginnaaw frontières yi tëj na am na ci lu bari loo xam ne mënoon nañ cee profito. ah fexe ba nit ñi opportunité la a nekk ndax parce que coronavirus bi dafa war a jàngale am. Mm-hmm. parce que yàlla moom koo ko wàccee wax ne na ngeen ci jàng xam nga lu ci bëgg. mooy jàngal xeet bi suñu rafetal seenu guddi. wax naa ko barki dem ne leen gis nga tey union européen ana union européen Pape. Ah. feebar hmm. bi amee eh, tey dem France français bi mënatoo te ñëw Italie. mu ne tey pourtant dañ ne woon dañ ne woon menn réew la. Hmm. pourtant dañ ne woon menn réew la. Hmm. amul visa amul dara ci neex dem mais bi feebar bi amee kenn ku ci nekk da ngaa toog sa dëkk di ko lijjanti. kon lu mel nii africain yi waroon nañ cee jàng jàngate moo xamante ne tey àll bi fii Pape bu ma la waxee ne la am na fourbe bu nekk fii biir Sénégal boo xamante ne fourbe bi ngi fourbe bi mi ngi yàqu te nit ñaa ngi xiif kenn jënd ko. te pourtant waroon nañoo gëm daa nit kee dee ci kii war naa mën a lekk fruit boobu. waaw. mais fu leen ko ñu ngi toog di xaar ay conteneur yu ñëw pour di indi pomme wala muy indi pesca wala muy indi euh, poire wala muy indi yeneen fruit yi te fruit yaa ngi fii Sénégal nit ñi di consommé ko dañ ko wàcc ci mbedd mi. mango mango gi de li fay yàqu kenn du xam nu mu toll. dañ koy mu mel ni kon tey yu mel noonu sëñ Pape bu ci jàngoon ñaareel ba mooy ci ci loolu ci laay bàyyee ngeen continuer gis nga Pape. Mhm. depuis état d'urgence bi am Sénégal ak couvre-feu ba mu amee ba léegi yéen ñi nekk ci diaspora bi di dégg ay mille milliards ay àngam gis nga tëj nañ ñu fukki fan yoo xam ne ci Sénégal fi toog may wax ak yow man commune bii ma nekk di commune di Darou si benn dërëm bu jóge ci état wala ceeb bu jóge ci état dimbalee ko nit ñi tëj ci kër yi amagul. Hmm. benn et benn dërëm naa la bu jóge ci et boo xam ne accès na ci dëkk fukki fan nga tëj ko ay nit joxuñu leen benn ndimbal daara yi fi nekk man ñii di wax ak yow. ak samay morom ñun ñoo organisé am ci seen kër dañuy toggee di yóbbu ca daara ja ngir daara yi mën toog ci biir kër gi. fi mu man ñii di ñun ñii di wax ak yow. fi ay cent daara mi ne dëkk bi kenn ku ci nekk def li nga man ñu taxawaalu ci mbedd fekk ci lekk di leen jox naan. ba fii may xam fii ci dëkk bi amagul te nim ñàkk ci dëkk bi mais xana bala nga koy tambali wala nga di ko def ba noppi parce que ñun buñ sañoon ñëpp ci kër yi ba feebar bi kenn du ko am ñi di toog ci kër yi hmm. lan la ñuy toog ci kër yi pap ah, ci réew ñu def dara luñ toogee xamante ne da doon dem ba marché ba 1000 francs dem jox ko jabaram dépasse nga ne ko toog ci kër gi lu muy def hmm. parce que moom dessa saa ci kër gi day dee bu demee ci bitti day préféré bala ko doomam ko dama tifaat la mu dem tifaat hmm. am na ci yoo xamante ne eh, wax dëgg yàlla seen wax ci am na solo lool du leen téye lu baree bari maa ngi déglu mais wax dëgg yàlla am na importance am importance boo xamante ne man damaa yaakaar ne suñu état yi fi mu toll waruñu woon a ci nekk naan ay wax waruñu woon tubaab bi jox parce que Sénégal tey xoolal hôpitalu Sénégal tey ba fi amee léegi ba feebar bi ci ay teraanga am nañ leen am nañ am nañ naaj am nañ jant am xamante ne ay médicament la yu nekk tey traité nit ñu ñu wér yooyu yëpp tey bu pour lu gaaw pour ñu parce que Italie yéen ñi fi nekk a parce que Italie mooy dafa mooy dafa humide dafa humide dafa am humidité maanaam fi ñu am ay problème nangam pour faj leen rek problème la. su soj rek am Italie lu bari dañuy parce que Italie dëkk bi ni mu demoon ni mu bindoo la ñun yëpp xam nañ ko mais fii tey virus bi am na fi mais yomb naa faj ci bu état bi toogoon def li ñu naan mais gis nga bi ñu jógee li leen nit ñëpp doon mere mooy bi ñu dañ fee bàyyi ndaje yëpp jàkka la ñuy waxtaane këri diine yi nangam nañ tëj nangam nañ tëj nangam te mu nekk ab balaa boo xamante ne même buñ ko dee fajit dañ ko war a fexe ba faj ko ci yëpp mooy faj ko ci wàllug docteur waaye faj ko ci ñaan tamit parce que balaa la mm-hmm. tay mën hmm. organiser indonesie def ni malaisie def ba nga xamante nit ñi danañ mën a concentré wu mëna jaamu yalla mëna ñaan ci jëgë mën a faj ñi di ngi feebar bi jeex xamna seigne pap damay bayyi rek su ko tegee continuer dama don barkeru rek te dina jërëjëf jërëjëf maanaam jërëjëf jërëjëf Mbacke sax la la bëggoon a laaj ndax euh manam dafa yéeme lool Sénégal ñu fay téré sax dem ba léegi commencé euh, parce que bari na ay audio yu koy wax ñuy wax dañuy tere sax ñu noddu euh, euh, loolu xëy na ay exagération la ci yenn kilifa yi nga xam ni dañoo jiite wàllu adduna ñu jox leen ay fonction man ma gëm ni tey jii euh, jàngoro ji bu yemoon rek ci jàngoro yi scientifique scientifique yi daaneel nañ ko ndax adduna bi yëpp la tey jii fépp fu scientifique nekk ci adduna bi yaa ngi rey sa mu mel ni. Euh, mbirum yàlla daf ceeb euh, ñu dellu siwaat ci yàlla ñoom yi dañuy tere lépp luy ay fen boo xoolee daanaka euh, Sénégal dafa mel ni boobu yi tere wuñ ko loolu nag xaw a nekk tuuti paradox ci ci ci ci sunum réew ndax tey jii boo gisee yenn dëkk yi nga xam ni bi yëfi xewee wax nga ko ay Indonésie ñoom ñi ngi organiser waat par exemple teg ay ay ay ay eh, ay ay maanaam genre yooyu ñu teg ci aéroport yi damay fàttali nu mu tudd genre genre eh, genre kii la nu ñu koy waxati eh, test yooyu nga xam ne voilà nga xam ni dañ lay mën a contrôler dugg ci jumaa yi ñu ñu ñu bàyyi espace yi te pourtant wax dëgg fa yàlla démb bi ñuy feete indépendance militaire yaa ngi ci biir pare bi am na donte mbooloo mi barewul waaye am na escadron bu fa nekk président de la république mingi recevoir palais comme Marseille euh, keroog bi ñu wanee griot yi ñu tok xaju ñu sax ci escalier yi reetaan daf ma jàpp ma di wax est-ce que suñu réew ñun léeg-léeg li soxna Marème di wax euh euh luñu rax rek luñu ñu tëgg rek rax ci përëm ndax it nak vraiment téré bo bëgg téré diiné, nga xamni ñun diiné moy suñu sook lépp luñu def diiné mo ci te nak bo xolé wax dëgg fa Yalla l'exemple de Touba nous nous nous enseigne que ni yëf Euh, jarul nag dangal parce que mënoo jël marché yi bàyyi nit ñi keroog damaa gis benn photo ñu wane ma euh, pooru mbuur beede mbuur bi nit ñi maanaam gaal yi maanaam laa fa nekk ci nit dafa mel ni màggalu Tuuba ñu mën a permettre yu mel noonu di tere barab yi nga xam ni dañ fay jullee bu ñu jullee ba pare tëjaat ku nekk dem sa yoon mais dañu war a créer ay instruments pour di sanificare barabu julli yi waaye ëpp naa tëj man dama gëm ni. maanaam fi ñuy jaamu yàlla tëj ko musiba la cib réew sëñ sëñ sëñ sëñ. ba barakalaa sëñ Pape gis nga fii moom baye boo sa xel dal ndax ba mu amee maanaam ñun sën yi fi nekk yépp te jàng xam li ñu ci diine ji wax xam li ñuy jëfandikoo ci àdduna ñun ñëpp moom dañoo taxaw bañ ba tëdd ca naaj wane suñuy jumaa ak suñuy jàkk moom du tëj. daaru muxti gii may wax ak yow benn juma wala jenn jàkk ju fi tëj amut touba gem may wax ak yow jenn juma wala jenn jàkk ju fa tej amul mais nak ñun fexé nañ ba organiser avant ñu l'état di wax di organiser len xam nga nu ñu organiser fi tollu juma ji danañ fexé ba lu xam nga diine dafa wax ne fukki nit ak ben buñ dajé rek man nañu julli man mm-hmm. nañu julli aljuma ñun nak fexé nañ ba juma ji lu mat ñaar fukk wala fanweeri nit danañ fi nek yo xamante ñoy représenter ñeneen ci dess julli mm-hmm. touba non lañuy def darou musi gi def julli julli julli juróom yi moom limité wuñ ko mais danañ fexe nit ku nekk dànd ak moroomam un mètre wala deux mètres. Mm-hmm. maanaam ñun noonu la organiser organisé. Mm-hmm. ba fii may wax ak yow fi ñu toll nii ci noonu la ñuy dunde maanaam jenn jumaa wala jenn jàkka tëju fi. ñoo ngi julli normal ñoo ngi julli ñoo ngi julli normal di jaamu yàlla nuñ ko waroon a defee ñu ngi koy def. a manqué wu ci waaye nag organiser ko ba nga xamante ne doo dugg ci jàkka ji te raxasuwoo do mhm. genn te wo mhm. da nga laal ay sel dañuy obligé sax ñooñu ñu sant ne nañ julli si dañ leen di sant sax ne leen kuy ñëw na nga wut masque takk ko ba julli ba noppi mhm. te loolu tey état moo ñu ko waroon a def lo mais état defaluñu ko ñun ñoo ko defal suñ bopp dëgg la kon mu mel ni tey yooyu ñuy wax yépp ñoom li ñu waroon a organiser mooy fexe ba nit ñi mën a jaamu yàlla te jaamu yàlla ni ko yàlla bëggee te ñaan jàngoro ji mu dañ parce que jàngoro ji ñaan dindi dëgg la Italiens yi xam Italiens yi yow yow yow xam nga leen Italiens yi pap ku leen dàq faj amul ci àdduna. Mhm. Italiens yi ku leen gën a sawar ci am faj-faj bañ na ko bu ñu lay faj sax nit ki docteur bi pour mu faj la ba nga wér jaral na ko lu ne jaral na ko lu ne ci àdduna. Mhm. tey bu ñu demee ba jaaxle ba tàllal loxo xam nañ ne am na lu laxasu ci biir loo xamante ne li ci laxasu dëkk yi nga xam ne ay jullit lañ dañoo waroon a profité ba génn ci ñeneen ñu dul ay jullit. Mhm. boo gisee tey Touba mere woon leen ak ñu def nangam nangam tey ministre bi barki démb dégg nga conférence am bi mu wax dem na bay jël exemple ci Touba Hmm? bis sëñ bi ne toog leen kenn génnatul ku ne yaa ngi toog sa kër. waaw tey feebar bi am na fa moom moom lañ mas a dëkk boo xam ne feebar bi dugg na fa. mëtagul un mois ñu dem naan feebar bi jeex na wala def na nanga. Hmm. te loolu yar yar moo leen ko may kon léegi sëriñ si noonu ñuy yare su fekkonte ne état bi nangul na leen te topp leen mën nañoo yar lu baree bari mën ñoo dindi lu baree bari sëñ Pape. dëgg la dëgg la dëgg la jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf xam naa dafa nekkoon sax li tàmbale nuyoo bi rek ñu bëgg a dugg nag ci tomb émission bi tey ndax euh, maanaam diaspora moom li ñuy dund fii bokk na ci li nga xam ni moom mooy euh, mooy mooy sunu nekkin fii euh, di laayante biir saa su jamono ji mën a suta dem te génnuñu génnuñu maanaam thème bi nga xam ni moo di situation bii ñuy dund tey jii nag ñu dellu siwaat li tax sax ñu gën a woo soxna Marème daanaka thème bi daf ci bokk góor ak jigéen ndax confinement bi ñuy dund fii sëñ bi <laughs> soxna Marème sax laay jox xëy na bu paree xëy na boo ci bëggee laal nga euh, euh, sofaat nga sof ci rek euh, lenn ci sunu nekkin fii ci wàllu confinement bi muy ndi nag léeg-léeg ay ay jafe-jafe yu bari ci biir kër yi lu yem rek ci ci ci ci ci wàllu dundi geeg finance bi waaye dañuy dem sax ba crise crise des ménages problème social yi ay réel nekk ci biir ndax it lu ci bëri euh, confinement moom nga nekk ak nit vingt quatre heures sur vingt quatre léeg-léeg dina indi génne ay jikko yu kenn gisul woon euh, yooyu tey ji bokk na ci lenn lu ñu bëgg a waxtaan xëy na ci fin bi ñu dogg laal nag situation général bi am naa daal sëñ Marème soxna Marème xaw ma ndax da ngaa da ngay da ngay dem ma ni naa la jox nga nga nga nga nga nga nga nga nga développé ndax vraiment jaadu na aussi ñu waxtaan ci confinement bi situation yu dramatique yi ñuy dund ndax léeg-léeg couple ak même pas sax couple yi léeg nga gis ci biir kër yi nekkin ni maanaam ndax nag wax dëgg fa yàlla ñun xam nañ euh, dëkkin bu xat bi ñuy dëkkee ñun sénégalais yi jamono bi nga xam ni léeg-léeg nga gis ku nekk ay sept huit personnes dëkk ci benn appartement wu deux chambres bu ñëpp waree toog ci kër gi vingt quatre heures sur vingt quatre ku nekk war a am sa espace su bopp foofu léeg-léeg euh, euh, convivence bi dina nekk lu xaw a metti soxna Mariam soxna Marème soxna Marème daa mel ni daa tëj micro bi waaw Pape allo. waaw sëñ Pape. waaw dafa mel ni soxna Marème xam naa dafa sori bisimilah. def naa dégg nga développement bi ma def. waaw waaw maa ngi maa bu baax sëñ bi. Mbacke mu lay ziar bu baax a baax. wa bismillah soxna maram yo kat la don jox ki way dafa melni da nga don da nga doon def yebi jobe ah wa baye pap nuyo bo pare wa baye pap nuyo bo pare comme ki <laughs> bismillah non non man man man man kay nuyoo naa ca njëlbeen. mais <laughs> yow. kàddu bi ci euh, ñaareelu pàcc bi. Uh-huh. ma bi. mom la ci Pape don annoncer ah ok ok. ni moy am ci keur yi. ci mm-hmm. yow moom soxna Marème yow moom sa confinement neexul ndax xam naa ni di nga jël ay poids ndax bés bu ne. bu dee eh, xalaatuma ko ah dana non non man tey moom sans laa doon defaral torta. Mm-hmm. en tout cas daal doy na waar. <laughs> Ah, <laughs> maa ngi leen di ziaraat bu baax a baax a baax di ziar sëñ Mbacke moomu génn léegi. parce que intervention vraiment c'était pertinent te lim ci wax yépp euh, lu am solo la machallah allah comme niñ ko waxé rek confinement bi mom vraiment dina metti dina poser tamit ay problème yu béré béré béré parce que xam nañ né fi mom nit ñi dañuy xey genn kër yi guddi ba guddi ci kër yi donc lolu dina tax euh, peut être di nga nekk ak nit do xam jikom wala lu bari ci jikom daf lay reer donc euh, bu ngeen buñ bu koo xam ne nag da ngeen daan xëy nuyonte ku nekk dem gont guddi ba guddi ngeen dajawaat ngeen bëgg a yendu ci kër gi tout la journée te gis nañ kër yi ni mu xatee euh, loolu dina poser problème moo tax keroog bi ñuy def débat bi ñu xaw ko brosser tuuti parce que nekk nii ci kër yi il faut Euh, ñu mën koo rafetal daal pour mën a nekk parce que confinement moom dafa metti trop trop trop te du du question jëkkër ak jabar sax paabar wax na ko sànq parce que gis nañ sénégalais yi ni ñuy dundee fii parce que di gis benn ker boo xam ne par exemple mën na fa nekk ba cinq à six personnes peut-être kenn du ci bokk ak sa morom dara da ngeen fay daje rek dëkk parce que ay sénégalais ngeen ku nekk bu xëyee dem liggéey wàcc ngeen dajawaat ci kër gi donc loolu mën na poser ay problème ci confinement bi Euh, man li ma gënoon a ñor gën ma intéressé mooy vraiment confinement bi avec les couples yinga nga xam ne dañ fi nekk muy par exemple jëkkër ak jabar ak euh, seen njaboot ndax euh, confinement boobu moo gën a am na ci ñu mu metti trop am na ci ñu metti trop te xam naa ne yéen am na lu ngeen ci yëg ñun tamit am na luñ ci yëg parce que am na si ñoo xam ne seen dëkk metti na lool fi ñu toll nii ndax euh, li ñu waxoon bi paase rek mu ñëlante bi daf cee baax mu ñëlante bi daf cee am solo te mu ñëlante bi mi ngi commencé ci yow mi nga xam ne yaay borom kër gi vraiment ku góor ki nga mën a allo. waaw yow mi nga xam ne yow mi nga xam ne yaay góor yor sa soxna andi ko ci réew mi. wala bok nga takke ko ci rew mi nek ak mom nek ak sa njabot vraiment war nga am esprit de dépassement a mhm. part esprit de dépassement bobu yow mi comme lima ma rek lay waxat am na ñu sik am na ñu sik mais nak il faut ñuy muñalante te muñalante bi mi ngi commencé ci yow mi gor nga xam sa devoir nga koy def li nga am sa soxna xam yow li nga am dina la ko muñal mais ci bir muñal bobu ak yoy yep nak violence bi tamit mu ngi commencé am dans les couples sénégalais te violence boobu nag war nañ ko mën a moytu bu baax a baax a baax ndax bu ñu mm-hmm. demee ba couple violence commencé ci am traumatisme dina am ci xale yi mm-hmm. te loolu dafay jur loo xam ne ñun daaw ñu am problème yooyu te léegi dans les foyers sénégalais da ngay mm-hmm. gis euh, couple yoo xam ne léegi dañuy jël sax dem nañu ba état état italien bi da fay jël domi ak jabar ji mettre len dans dans un foyer protégé ba nga xamni ne ji sax du xam jabaram ak ay domam fan lañu ñu nekk mm-hmm. parce que gouvernement bi moy dem ba violence bobu da fay dem ba jéggi dayo ba nga xamni dañuy jël jabar ji ak domi yobul len ci lieu protecteur neub len fofu pour jëkkër ji bañ a xam fu ñu nekk parce que violence bobu da fay jéggi dayo té lolu xamé wuñ ko won sénégalais mais mais nak mais nak mais nag euh, euh, inversel ñaari kayep non non non non non dafay am ku ah, ki dafay am ku jigéen ki hein? waaw mais Pape xam nga lu tax ma insisté ci violence faite aux femmes peut-être que je suis féministe mais en fait boo xoolee buñ ci amee 100 cas 90 yëpp ce sont des femmes qui subissent mm-hmm. am na jigéen ñoo xam ne elles sont violentes mais loolu dafa am am na jigéen ñoo xam ne ñoom ñooy terroriser seen jëkkër mais quand une fille donne lieu pour ñu ñuy woo ñuy intervenir peut-être que xam xëy na tamit góor moo ëpp maîtrise ba nga xam ne mën subir loolu sans pour autant daf koy rusa waxal daf koy rusa génne mhm. mais dama ne la euh, bu ñu amee cent cas quatre-vingt-dix pour cent yëpp ay jigéen la ñoom ñoo subir parce que en général ñun dañuy foog ne bu ñu waxee violence rek euh, dafa violence boo xam ne par exemple violence physique non non non mais mhm. la violence euh, du nekk que violence physique rek parce que nit ki mun nga ko bunduxataal ci façon yu bëri. Mm-hmm. parce que violence physique c' est la violence minime parce que loolu dafa nekk loo xam ne da nga ciy teg sa bët da nga koy gis mais am na violence yoo xam ne moo nekk violence yu gën a garaaw mais nit du ci teg bëtam. parce que violence psychologique. Uh-huh, uh-huh. boobu violence psychologique amul violence bu ko gën a metti te jigéen ñi ñu ngi koy subir. moo gën a bon te moo gën a bon. parce que violence psychologique boo koy boo koy teg nit. kooku dafay dem ba dafay dafay tàggoog sagoom. Mhm. kooku dafay dem bay dafay def ay yëfi dof ñu naan pourtant moom de manqué wul dara këram. mais manqué wul dara këram mais lan lay dund biir këram. violence violence sexuelle. Mhm. am na ñoo xam ne dañ lay dañ lay rek am na góor ñoo ne dañ lay récatare sexuellement. dëgg la dañ lay récatare sexuellement. Mhm. ah loolu loolu loolu violence boobu amul violence bu ko gën a metti te loolu jigéen ñi ñu ngi koy dund seen biir kër yi violence économique. Mhm, mhm. violence économique parce que mënoo indi doomu jàmbur ba ci dëkk bi nekk feeg moom amu fi ndey amu fi baay xamu fi kenn wala nga mhm. wala mën nga ko takkee ci dëkk bi mais non seulement def nga violence psychologique ba nga xam ne xale bi nekkatul nit loolu doyu nga jëlaat nag violence violence violence euh, financière teg ko ci kawam mais loolu amul lu ko gën a metti am na ñoo xam ne dañuy xëy di liggéey seen jabar du yor dara non seulement yow mënoo génn ci kër gi parce que amuloo permis mënoo dawal xamuloo fi kenn déggoo langue bi. mais du ñu yem ci loolu rek dépense sax duñ la ko bàyyeel. xam nga loolu dara. am na am ma ne ko metti yàlla ah. dafa def tey plateau bi xaw naa riche bari nañ ay gan. damay dalal tey ku nekk dugal sa argument ñu ñu waraat defaat beneen tour tour de table. mu mel ni jëwriñ Masseer Masseer mi ngi ci biir Masseer Diané. Mhm. salaamaaleykum. waaw ma seer ñu ngi ziar bu baax ah non dafa la diga suñ tam bismillah naka yi tey yow gi sant gi sant yàlla def naa ni def naa ni ah, fekk fekk fekk nga ñu ñu nekk ci xolu émission bi kon ma joxaat la kàddu gi rek nga nga nga nga nga développé boo paree ma delloo ko ci ñablaay ñu doog ñu doog a wëraat waaw maa ngi maa maa maa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di di jaare ñi nekk ci ci plateau bi yëpp mhm. am naa du ma tudd tur waaye naa naa naa ko naa ko joxee noonu rek ngeen xam ne nuyu naa ngeen. ñu lay fay. soxna Marème maa ngi lay ziare baax macha allah maa ngi rafetlu waxtaan. maa ngi leen di suivre bi ngeen tàmbalee ba léegi. Mhm. sunu sunu sëriñ sëñ Max ma Mahamadan Mbàkke maa ngi koy ziar baax a baax a baax moom tamit. Mhm. di ko di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal tawfiix di ko ñaanal yéen ñëpp di ko ñaanal àdduna bépp. amiin amiin. Eh, di rafetlu di rafetlu waxtaan bi wax dëgg yàlla pap bi ngeen tàmbalee ba léegi maa ngi leen di déglu waaye eh, li ma dégg ci waxtaan bi mooy lenn loo xam ne nii amul njariñ eh, ci waxtaan wi amu ci maanaam li ngeen wax lépp am njariñ. bi mm-hmm. ngeen tàmbalee ba léegi maanaam argument yi ngeen laal yëpp am njariñ te it nag day argument yoo xam ne wax dëgg yàlla xam naa ne di ko développé ci benn émission mënta nekk c'est très impossible. Mm-hmm. mu nek eh, kon kon ma ma ma jox ma jox ma jox ma joxe benn eh, maanaam suggériment rek ci nu ma la waxee maanaam comme li ngeen di développer dafay dafay am importance te it boo ko bëggee tas ci benn jataay xëy na day jafe mm-hmm. di di di di di di waxtaanee argument day baax parce que xam nga yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci ci ci ci maanaam def euh, analyse euh, seen Sénégal bi amee indépendance ak léegi la lan lañ ci mën a jàng xam nga ci biir débat boobu yi génn nañ ci eh, virus bi génn nañ ci eh, violence eh, mm, familiale yi génn nañ ci tam yu bëree bëri yoo xam ne nii benn bu ci nekk am na am na solo te te te te te yaakaar naa ne benn bu ci nekk man war nañu war nañu fa mën a taxaw xóotal ko parce que biñ biñ mujjee rek mooy mooy bi soxna bi soxna bi soxna Mariam noonu noonu noonu noonu waxee muy muy thème bu bu bu am solo waaye bu délicat bi te kenn maanaam kenn kenn mënu ko argumenté ci ci ci ci ci ci Mezzora mënta nekk. non non absolument. dafa dafa bëri ay ay ay ay complication ak ak doy na waar xam xam ngeen ko parce que li may xam ngeen ko. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. su ko defee kon man bu fekkee ne damay waxtaan rek du ma dugg ci ci yi dama damay def benn benn benn benn benn benn kii rek ma wax résumé waaye. benn jàngat rek ci ci ci ci Sénégal parce que wax dëgg yàlla yaa yaakaar naa ne suñ réew muy Sénégal bokk na ci li ñuy gën a ñor ci àdduna maanaam développement Sénégal. Mm-hmm. donte ñu ngi ci réew mi nga xam ne nii li sëñ li sëñ Mahmada wax ci ci ci njëbbeel ga ñëw bi fi ñëw du du du du du hasard am na lu tax. Mm-hmm. waaye li ñu fiy nekk nekk nekk bu ñu sañoon tey tey maanaam ñun ñëpp nag wax dëgg yàlla kuñ ci doon laaj tey Sénégal développé ak ak Italie développé Sénégal développé ngay wax parce que loolu moo nekk sa xol donte yéen a ngi Italie développé wax dëgg yàlla. Hmm. pour pour wax rek ne quand même bien vrai que sot nañ Sénégal waaye Sénégal mi ngi ci kon kon li ma jublu foofu mooy bu ñu yoree réew mi mel ne Sénégal. ñu dem ba ba ba ba ba ba ñu amee indépendance ba léegi ci ni nga ko waxee parce que loolu indépendance maanaam dañuy wax indépendance <laughs> mel leen sax ak ñun libre <laughs> am amuñ amuñ liberté amuñ liberté ci gàttal maanaam dañ ko tuddee noonu ci ci tubaab rek parce que loolu xam nga ay ay ay ay argument la xam ne dañ koy joxe ci ci histoire waaye ñun boo boo boo boo bu ñu jàngatee dëgg dëgg man mën nañu wax ne Sénégal libre amul amul amul indépendance. Mm-hmm. muy pro muy problème bu bu compliqué parce que nit ci yeeg libre rek li bëgg lépp du ko man tey man jàpp naa ne pour ñu libre maanaam dafa bëri ay facteurs yoo xam ne nii dañ dañ ko war a affronter. bi ci njëkk te te li may seetlu mooy ñaare bi ñuy wax ci mel nii day mel ne dañuy jël lépp ñaare laa wax nag wax di yàlla du simple waaye dañuy mel ne dañuy jël lépp teg ko ci état bi. teg ko ci ci muy muy muy muy muy muy muy muy destre muy sinistre dañuy jël lépp te

te loolu neexut a dindi parce que dafa lié ak suñu culture. Mhm. kon ma jàpp ne ñun xëy na bu ñu waxtaan ci mel nii mën nañ def analyse boo xam ne dañ koy def dañuy def analyse boo xam ne analyse bu bu yaatu lay doon rek waaye nag jéem xool yi nga xam ne nii mooy facteurs yi def yi bloqué quand même euh, développement Sénégal parce que Sénégal aussi mi mi ngi développé ah wax dëgg yàlla mi ngi développé. si. Sénégal tout n'est pas négatif. déedéet tout n'est pas négatif nga Sénégal mhm. borom xam-xam yi ya fa am ci xam-xam ci ci bitim ne na ñu ci ko xam-xam yi Sénégal borom xam yi nekk Sénégal ñu am ci am jàng li ñu am ci xam-xam li li li Europe am. am na lu bëri loo xam ne ñun dañ ko te duñ ko xam capacité euh, ci ci ci ci ci préparation. te dañ koy xeeb à chaque fois parce que rek toujours li xool ñu suñu bët ñu ngi koy teg ci Europe. am nañ am nañ ay ressources humaines yoo xam ne nii au niveau du Sénégal sur tous les plans yoo xam ne nii buñ ko xamoon ñun dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg valeur bi ñu ko xamoon man ko man ko man ko man koo exploité man ko développé. duñu xool sax réew réew réew européen te pourtant am na xëy na kon la màgg Sénégal peut-être problème organisation lay doon mun na am. wala boog problème moyen la mun na am. wala bok problème problème problème donc am nañ am nañ yu am solo yu yu nek Sénégal. hmm kon yaakaar naa ne ñun ne dañuy def dañuy def dañuy def jang jang yu melni euh, ci ci ci bi Sénégal amee indépendance ak légui facteur yu bari bari man nañ ko xol euh, jëwri da da da dama damay damay dugg rek woné sama sama sama sama sama sama sama participation ci ci émission bi. Mm-hmm. rafetlu bu baax a baax a baax te xam ne quand même yéen ñi ko seq ay borom xam-xam ngeen. te it kenn ku nekk ci yéen euh, li muy génnee bo bo boo ko boolee ak la moroomam di génnee la ci la ciy génn mooy mooy mooy mooy lu jëriñ doomu aadama yi li ciy génn lépp mooy loo xam ne nii bu fekkoon ne xëy na Sénégal ñu koy jiite boog wala boog ñu ko séq ci fànn yëpp laax nag parce que bugguma laal gouvernement quoi parce que responsabilité fépp la. dëgg la. responsabilité fépp fépp la gis nga Sénégal boo ko xaajoon ay parti dafa bëri ay parti parti bu ci nekk bu fekkoon ne la nga war a dëgg-dëgg yaa ngi koy def. li ñuy maanaam li li ñuy jooy euh, li ñuy ñaxtu te te du du du bëri mënta ñàkk nag am réew quand lii di dox lii du bañ a dox waaye li ma bëgg wax mooy responsabilité bi est une responsabilité à condivision donc ñu ko seq dañu bëri. du bara ne ne ne ne lii bu ñu ko defoon bërki démb rek par exemple li li xew ci ci ci ci kii bi ci confinement bi bi ñu defee couvre li ci li li li ci génn da ngeen ko am na ñoo xam ne dañoo taxaw ne. lii ñu def yi ko def te pourtant pourtant gouvernement mesure yi mu jël mi ngi jël rek pour pour population bi. pour aar doomu maa ngi gis vidéo bu inquiétante buñ ma wane buñ ma yónnee tey ay njaganjaay yu jaar ci àll bi di dugg di yóbbu di di di dëkk yi di yóbbu ay habitants. vous vous rendez compte vous vous lu lu inquiétant loo xam ni mais nag manque fermeté état tam daf ci am. parce que non état bi état xam nga état Sénégal quand même mu mënul affronter problème boobu parce que moyens yi im Sénégal yoru ko. donc waaw mais même bu dul loolu sax euh, grand master dafa am loo xam ne tamit gis nga commune yi ak arrondissement yi mais ils servent à quoi. bravissimo seen rôle lolu mais nag. il servent à quoi ñi nga xamné ne délimitement territoire bi ñi nga xamné ñu ñoo nekk ci gox ba dëkk fa y' a un maire il y' a un chef de quartier il y' a un imam il y' a leneen ak leneen mais gox ba ñu fa dëkk ñom ñoo wara taxaw ne kenn du fi jaar parce que le gouvernement ne peut pas être partout. non mais jëlee centraliser affaire yi lolu motax tax. je suis tout à fait d'accord avec toi mais jëlee l'exemple Italie rek pourtant Italie gi fini. nekk nii am na ci région yi am na ci commune yoo xam ne ko. Mhm, am na bien vrai que bien vrai que ñu ñu ñu ñu ngi leen di notifié ay ay ay multu. bien sûr yu bari sax. yu bari sax mais mais xam nga loolu li war a kéemaare mooy nit ki cest à nit ki moo war a jël conscience ci loolu. Hmm. nit ki moo war a xam ne quand même lii ñu ma koy aaye parce que li tax ñi ma koy aaye mooy sama wér gu yaram nañ ma aar. bien vrai que da ngay taqale rek maanaam oh, tu tu vis au jour le jour am na yoo xam ne ni quand même mënuloo ko résister mënuloo ko respecté waaye nag li ma bëgg a wax foofu rek mooy nit ñi war nañu am conscience ci. quand même que ne liñ leen di liñ leen di aaye wala boog mesures yi gouvernement bi jël ci ci ci ci euh, pour euh, lutter contre contre la maladie ça va dans leur intérêt donc loolu dañ war a hmm. contribuer bon pour vous dire quand même vraiment bëgguma tey ligne bi tamit lu yàgg mais waaw yow dañ laa may sax yow dañ laa may da ngaa tardé ñëw dugalaat ñu hors sujet parce que yow <laughs> yow dañ laa bàyyi nga wax ci lii rek sama tem nga empiété nag lu leer laa la wax <laughs> lu leer laa la wax nag ma ma ma maa ngi leen di jégalu asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Pape Makhtar. Pape Makhtar waaw sëñ Ba. waaw waaw maanaam eh, confinement bi moom ci loo ci dégg ak loo ban njàngat nga ci am ndax nak, eh, société bi ñu nekk gis ngeen ko. Hmm. société occidentale bi ñu nekk ba jamono yi bari na ay violence conjugale ba sax gis naa fi ay cas yuñ fi faat ci ay jigéen. dëgg la euh, am li ci gën a yéeme nag mooy paa bi génn ci mbedd mi ndeysaan benn paa war na am ay quatre-vingts ans ndeysaan mag la. Mhm. police bi da ngay duggaat sa kër mu ne la maa bañ. ñu ne ko fuori mhm. c'è la malattia mu ne leen la mia moglie è peggio del coronavirus. io mhm. non sto a casa ma portatemi via ma a casa non ci sto con la mia moglie. xam nga loolu. Eh, dafa nekk lu yéeme. te léeg-léeg dañ ci waxtaan di ree mais gis nga jikko lu doy la. maanaam nit ku mën a muñ muñ kàddu kaddu bu simple la mais kaddu bu yaatu la ndax xam nga léeg-léeg da ngay xool euh, balaa nga koy mën a xam nga seet ñett ñu dëkk ci nekk sëñ Pape euh, yow doo ci rendre compte boo leen fanaanee ci néeg mm-hmm. mën nga nekk ci néeg bi doo ci rendre compte mais boo génnee duggaat ci néeg bi. Mm-hmm. ngay xam ni am na lu xew ci néeg bi. Mm-hmm. léegi nag xam nga ñëpp yamuñu. am na ñoo xam ni hmm. yàlla daf leen may dañuy kuraare seen hygiène personnelle am ñoo xam ni par exemple duñu duñu tolérer désordre ku nekk da nga am sa jikko bopp mais léeg-léeg da ngay gis comme jamono yi nga xam ni kenn mënatul génn daanaka défaut yëpp dafay feeñ foofu naka nga yaakaaree ni pap nit ñi war nañu mën a am comportement pour war a mën a contrôler maanaam confinement bi waaw sëñ pap euh, maa ngi ziar suma jëwriñ ma seer ziar baax baax <laughs> def na njàngat bu am solo ci indépendance bi maanaam sunu ñàkk eh, autonomie politique eh, mu dellu siwaat it eh, yaatal wax xamal ñu aussi que ni wax dëgg yàlla indépendance bi ñuy revendiquer di wax ni am nañ ko amuñu ko du du du responsabilité de nos politiques seulement de nos gouvernants mais aussi société ñooy mm-hmm. refuse mm-hmm. Euh, manam l'ordre euh, xam nga bo démé ba teg ay ay ay comment dire ay ordre né bu kenn génn nañu def ni nañu def na nit ñi di am yenn comportement di euh, jallalé ay ndëgg sërëx di jallalé ay nit ak yoyu cela veut dire que une ordre arrangé wuñu on n'est pas prêt aussi psychologiquement pour développer d'une manière psychologique pour participer ci suñu dëkk ndax Europe gii nga nekk ñemewuloo génn ci angalu koñ bi fii di fi tuur ndox ndax xam nga la la fay mhm. xaar caméra yaa ngi fii xam nga ni boo ko defee am na daan bu lay bu lay xaar mhm. waaye que nekk Sénégal loolu du problème parce que danaan mbedd mi mbeddum buur la euh, waaye xamul ni buur yàlla suñ borom la te yàlla suñ borom foo nekk loo mënti defit mën na tax mën na laa gis mën na laa séen te moom moo lay juge ëllëg donc mhm. euh,

ils sont obligés ñu tok ci kër gi dékku li nga xamanteni ndaw si lool lay wax wala soxna si lool lay wax ak mhm. que soxna yi nga xamanteni par provocation dugal nañ seen borom kër ci kasso ndax amna fi du fi jeex du fi jeex amna fi ak goor ñi nga xamanteni man dama naan ndok ba nga xamanteni décret cour italia bi wul ay bonus yo xamanteni da koy dimbalé famille yi naan leen jox jox leen xaalis ñi mu def kon kër yi tas gën a tas. lañ lay jox mais bis bu ko defoon mu dugg ci biir kër yi. nii ñuy jàppante doon ko jàppante ci assegni familiaire yi di ci xuloo ko xeex bu dégg bëccëg lay gis couple yu naan maa koy jël kii naan no maa ko war a fayeeku kii naan bonus bi may dégg nag nangam ak nangam ndokk ba décréto cour Italia yàlla bu mu fi indi bonus bu mel noonu ndax bu ko fi indee coow li dana ni kur. mais mais Pape expliqué leen ni leen bonus yi du xaalis

Mm-hmm. nëbb am warul am am na góor ñoo xam ne lépp lu ñuy def euh, li ñuy fay xale bi asoño familiare yooyu yëpp dañ koy nëbb seen jabar ba seen jabar dem beneen jigéen di ko kox parce que fii xam nga sénégalais moo maanduwul mm-hmm. dañuy nekk seen kër lañ fay dund yow nga génn ñu xamal la loo xam ne yow foogoo ko woon wax la loo xam ne bu doon man nii laay def te bu doon ñoom tam duñ ko def mm-hmm. léegi yow nga dem attaqué sa jëkkër te loolu laay wax ne manque de communication moo baaxul ci couple parce que yow boo fi sa soxna mais mm-hmm. tegal ko lépp ci taabal ji ngeen toog discuter ci parce que doom yi yéen a ko bokk kër gi yéen ko bokk. Mm-hmm. yow soo ko tegalee lépp ngeen waxtaan ci lay dugg man je pense que bu communication doon am rek mun nañu éviter problème yu bëri mais xam nga ñun tamit xam nga gooru sénégalais dafa am lu mu def ci boppam que ne man maay kilifa kër gi mais man sama kilifteefu boroom kër duma ko xëccoog moom kàddoom la dama ko koy bàyyee. Mm-hmm. mais yow sa kilifteef googu wane ci mat gi nga mat doon chef de famille te mat gi nga mat doon chef de famille mooy nga mën a communiquer ak sa jabar. Mhm. bañ koo nëbb dara bu dara ñëwee nga teg ko ci taabal gi ngeen waxtaan ci mu jox la avem bien vrai que le dernier mot te revient toujours yow yaay yow yaay père de famille. Mhm. mais da nga war a discuter ak sa soxna. Mhm. mais ñàkk ñàkk discussion boobu nag ñàkk manque de communication boobu nag moo tax problème yu bari tey di am. parce que ku nekk rek jox ko la mu moom. te xam nga. Mm. xam nga xam nga Marème manque de communication bi dafa am benn euh, aspect boo xamante ni daanaka moom moo ko gën a moo ko gën a yokk. Mm-hmm. ndax boo xoolee instrument digital yi téléphone yi whatsapp yi yeneen ak yeneen ku nekk boo ñëwee yaa ngi kii il faudrait que ñaari parti yi muy ku góor ki ak ku jigéen ki ñoom ñaar ñu waxtaanee loo xamante ni maanaam ci naka la ñuy utiliser. Euh, mm-hmm. instrument heure bii. mais la de la Pape la communication revient toujours parce que loolu suñ ci ah waxtaan. waaw nga loolu méthode de communication la. si parce que am na couple yoo xam ne tey bu ñu xasee ba dugg seen kër huit heures su jotee. wala hmm. neuf heures téléphone jëkkër jeek bu jabar jeeg iPad yaag yëpp la ñu jël dem teg ko ca saal dem teg ko fenn foo xam ne kenn dootu ko xool ñu toog discuter toog waxtaan yor tiim seen njaboot. Hmm. te loolu ça doit être la règle de tous les jours parce que ñun bu ñu fàtte ne dañoo ñëw nekk fii dëgg la intégration dëgg la mais tamit ñun ay sénégalais lañu. dafa am loo xam ne suñu diine loolu la ñu sant te suñu diine lim ñu sant mooy yow miy góor sa jabar mm. sa soxna dëkkal ko dëkkoo ko muñal ko yow miy jigéen tamit déggalal sa borom kër. Mm. te loolu li may wax toujours rek dama naan jigéen lu mu am am ak ak lu mu émancipé émancipé dañ koy yilif fu mu toll. te mm. loolu du question sénégalais rek sax ci xeet yépp la muy italien muy keneen muy keneen. parce que boo gisee même dans les couples italiens da ngay gis né jëkkër ji bu moom dem bu fekkee choix dafa am ji il est le plus exposé pour dem outil indi ci kër gi. Mm-hmm. jawat ji bu amé choix mën na baña liggéey comme mën na liggéey mais jëkkër ji il est plus exposé pour mo dem outil indi ci kër gi parce que c'est le chef de famille. té lolu c'est c'est dans toutes les religions mais nak su fekkee ne yow ci biir famille bi. yow comme li ma waxoon rek dama ne am na jigéen ñi am nañu sikk góor ñi am nañu sikk te ni may joxee toor bi góor ñi noonu laa koy joxe jigéen ñi parce que am na jigéen ñoo xam ne tamit nee neexuñoo dëkkal dañ duñu wann baat bu hmm. ñu déggal seen borom kër bu ne benn ñu ne ko fukk te tamit suturaalu ñu seen borom kër te loolu jigéen mënu sëye noonu te ñun dañu am suñu aada dañu am dañu am soo xam loo xam ne mënoo ko teggi parce que sa baatu hmm. jëkkër mënoo ko teggi mais nag hmm. li may wax toujours dafa am loo xam ne sa sa borom kër bu ko comporté woo baatam da nga ko koy jox mais yow mi goor nak sa baat bobu pour nga jot ko il faut mu am no comporté wo mom la lay wax ne techno quelle que soit la technologie ñun dafa am nu ñu yaree ñun dafa am nu ñuy doxé parce que bo duggé sa biir kër yow toute la journée sa jabar gisoko mom gisula bu ngeen duggé ci biir kër gi am na à un moment xam nga man mi nga xamné sama borom kër nek fi man mën naa yore sama téléphone ba heure bu ma neex te yenn heure sax dama koy fay parce que dama bëgg ko ma déranger donc sama borom kër bu fi nekkee bu ma duggee sama kër man mi jigen ma koy commencé ma jël sama téléphone fay ko teg ko fële parce que xamna né je dois m'occuper de mon mari et de mes enfants Mm-hmm. mais dugg ci kër sa jëkkër yor téléphone sa jabar yor téléphone sa doom toog fële yor téléphone mais amul communication. dëgg xamul lan nga def si journée bi kenn raconté tul te autour du bool Sénégal da ngay toog di añ mais ci la ñuy waxtaan. Mm-hmm. ci la nit ñi di waxtaan bu ngeen toogee di lekk ci la nit waxtaan ku nekk wax sa morom ku nekk jottali xam nga c'est un moment boo xam ne c'est le c'est moment de la famille un moment familial. Mm-hmm. donc donc émancipation encore une fois ñun jigéen ñi nekk fii yor fi suñu borom kër nañu xam ne émancipation ça ne rime pas ak nga bañ a jox sa jëkkër euh, cëram. Mhm. ça ne rime pas ak da ngay def lu la neex parce que yaa ngi fayee ko salaire parce que li may wax toujours encore une fois liggéey deug la ci jaamu yalla la bok mais nañu xalaat ne ñun jigéen suñu borom kër suñuy liggéey c'est parce que ñom ñoñu permettre ñu liggéey mais ci kaw ñu permettre ñu ñuy liggéey bobu warul tax nak suñu devoir dafa am ñu fatte ko. Mhm. warul tax suñu devoir dafa am ñu fàtte ko. xam nga xam nga Marème xam nga dafa am benn aspect boo xamante ni ñun moom lañu ñu dund Sénégal Afrique sax laay wax rawatina Sénégal maanaam yenn instance yi. yenn mhm. daje yi. muy mhm. bool boobu ngay wax. Euh, ma l'arbre à palabre. xam nga fa mhm. ñi daan daje fa lañ daan sottante xalaat décision yi fa la daan jóge ñun bi ñu ñëwee Europe ñun dañoo def royub dàq. Euh, danoo xaw a lu bari. ci tubaab yi xaw a bàyyi suñu culture tuuti loolu nag xeex boobu moom la ñu war a def ñun parce que même muy muy ku ci ku góor ki muy ci ku jigéen ki parce que ni ñu sëyee ni ñu ni ñu euh, euh, digalee ku jigéen ki mu sëy ku góor ki noonu lan am lu luñ ko teg loo xamante ni ci mu sàmm mm-hmm, euh, mm-hmm. am na lu ñu ko teg te Olof Njaay dafay faral di wax ni nit mënta mënta ji suukar Euh, mënta ji kaani bëgg a bëgg a bëgg a góppi euh, suukar mënta ne mm-hmm. euh, ñun moment bii nii ak coronavirus bi dafa am ay aspects yoo xamante ni dañ ko war a jël maanaam li ñu doon wax sànq ci njëlbeen bi nii war nañu xool aspect positif yi nga xamante ni feebar bi doonte mi ngi fi mais am na loo xamante ni war nañ ko ci mën a jàng ba mu doon yokkute ci ñun mm-hmm. dañu xool rek feebar bi fii mu toll nii

Sénégal gee tey boo fa demee daf lay leer ni bu ñu defoon confinement comme fii ni ñu koy defee ba ñu génn dans la journée dafay set wicc la même chose yu ñëwaat jàngalaat ñu socialisation ci biir famille maanaam ni ngay mën a nokkee ci biir kër gi ak njàng bi nga mën a jàng gën a jege gën a ut affection ci sa njaboot loo xamante ni yow pertoon nga ko daanaka te boo continuer woon ni nga doon dundee da koy gën a perte ñaata ci ñun ñooy nekk ak seen njaboot te xamuñu leen miinuñu leen miin bi ñu leen war a miin parce que daawuñu togg ñoom daawuñu waxtaan ak ñoom. te la moom wàccee da ngay dem julli ji boo jullee ba pare xale yi seen tëdd jot na reer nga xale yi dem nañ tëddi amul benn instant boo xamante ni yow yaa ngi toog di waxtaan ak sa njaboot wala ngay foog ñoom wala ngay kaf ak ñoom. tey jii tu es obligé donc nga war a jël loolu dënk ko ci communication boobu ngay wax di waxtaan profité ci. Euh, la nga la la rëccoon ci jaamu yàlla sax nga profité def ko ci ndax mën ngaa yor sa kurus yaa ngi ci kër gi defoo dara mën ngaa julli say julli yaa ngi ci kër gi defoo dara euh, waxtu wa nga daan faat ndax yaa ngi woon ci liggéey bi tey jii yaa ngi ci kër gi mën nga koo mën nga koo julli kon mu bari euh, mbir yoo xamante ni coronavirus bi war nañu ko jàngal ñu war koo persévérer Eh, damay dund sëñ Saliou Mbacke Daaru salam mu mu mu mu wax ci semu vidéo sama sëriñ video mhm. wax ci vidéo si YouTube bi mu ne eh, donte feebar bi mi ngi fi waaye nañ ci am ay njàngat yoo xamante ni war nañ ko cee def eh, te ñu jël ko xam ni yàlla sun borom moom moo ñu moom moo ñu pour ñu ci mhm. am na lu bari loo xamante ni demoon nañu ba ñun suñu bopp danoo ñun suñu bopp demoon nañu ba fàtte njaboot gi ñun suñu bopp demoon nañu ba xamatuñu sax ñun ñooy kan euh, kon lii war nañ ci profito pour jéem a def jàngat yooyu pour delluwaat ca la nga xamante ni waaye dara weesuwul njàngale yi nga xamante ni sëriñ tuba sëriñ tuba bàyyi na ko fi loolu ñuy wax noonu ci indépendance ak ban yoon lañu war jaar ak consommé sénégalais bi ak nangam ak nangam ak comportement yi ñu war am ak refus de comportement yooyu yëpp sëñ bi bind na ko fi bàyyi fi amna ay mbind yo xamanteni ni dañ koo war a génneewaat euh, tekki ko sax ci wolof pour permettre ñi nga xamanteni vraiment euh, mënuñu ko mënuñu ko jàng ci alquran bi wala mënuñu mënuñu koo euh, faram fàccee ñu mën ko liir sax ci wolof pour mën a delluwaat ci yenn njàngale mag ñi wax dëgg yàlla pour mën a defaraat suñu réew parce que en temps de crise Nietzsche da doon wax benn philosophe da doon wax temps de crise jumaa yi day fees église yi fees synagogue yi fees mais bu crise bi weesoo rek euh, euh, kii yooyu yëpp jëm jëmukaay yooyu yëpp day vide parce que nit ñi dañuy dem ba fàtte yàlla waaw mm-hmm. te moment bii lañ toll da ngay dox ba ci yàgg sax benn tubaab naan la eh, speriamo speriamo naan la grazie a Dio speriamo te tubaab boobu amaana bërki démb boo ko boo boo jàkkaarloo woon ak moom lu bon lay lay lay lay wax wax yu ñaaw la daan wax kon donc tey jii képp koo gis ci àdduna xelam mi ngi dem ci ci yàlla parce que xam na ni moom moo fi nekk tey moom moo fi nekkoon démb moom moo fi nekkoon bërki démb ñun kay ñoo am suñu matadi goo xamante ni euh, duñu duñu duñu def yenn njàngat yi ci ci li nga xamante ni suñu borom mi ñu ko pap leneen li ma hmm. bëggoon yokk tamit mooy xam nga confinement bi moom problème bu hmm. bu ci feeñ rek dafa nekkul problème bo xamné confinement bi moko ko indi dafa nekkoon ay problème latent dans les couples. wa ah, olof wax na néna confinement bi daf koy gëna a mais. dafa nekkoon ay problème yo xamné ne na ci biir sénégalais parce que avant confinement bi dañ doon mhm. da nga doon dégg ay problème yo xamné ci ay sénégalais daf lay yem mhm. parce que pour la première fois depuis depuis immigration am sénégalais musul bokku ci. ñuy jël sa doom assistance sociale ñëw di nangu sa doom parce que couple bi dafa am violence. Mm-hmm. loolu dañ ci daan dégg ñëpp ba mu des sénégalais. Mm-hmm. te léegi da ko ciy dégg. conflit d'intérêt yi rek. waaw problème tey loolu yëpp lan moo ko indi problème mu xaalis moo ko indi parce que dafa dañu bàyyi suñu yoon bàyyi yoon bi mooy. Mm-hmm. yow mi góor li ma waxoon sànq rek laay waxaat gis nga kilifa danga nga war a mat li nga doon yow mi góor parce que. jigéen li may wax toujours da ko war a dëkkal dëkkoo ko mais la mu yor bu ko xool mais moom tamit war na am mat bu toll ne yow mi ko bàyyi muy dem di liggéey la mu yor mu jëm cee dimbali borom këram mais bu loolu yëpp dafa am lu ko lal mooy il faut ngeen di waxtaan il faut ngeen di diisoo il faut ngeen def seen bopp benn. mais ni mu amee góor ñu góor ñu sikk noonu la amee jigéen ñu sikk am na ci góor ñoo xam ne seen jabar bu commencé liggéey salaire am la ñu teg bët. Hmm. am na ci góor ñoo xam ne te nag loolu vraiment du yëfu kilifa yow sa soxna am na ci góor ñoo xam ne dañ la ah, naan sa salaire sama compte lay jaar am na góor ñoo xam ne yaa la responsabilité des parents soxna Marème dafa am dafa am mbokk mu nekk ci biir te xam naa ni bu ñu baree ci ligne bi rek léeg-léeg day perturbé euh, ma dalal ko dafa mel suñu jëwriñ sëñ Njaga uh-huh. ngi ci ligne bi ñu dalal ko mu mm-hmm. mu développe ñu kii parce que bu ñëpp baree nekkee ci ligne bi rek tam dafay am ay chamboulement nit ñi duñu dégg waaw doo may ma eggale bi may kii nii rek. waaw ah, kon bisimilah yeggali. waaw li ma bëggoon wax rek li ma bëggoon wax rek parce que sinon je perds le fil de mes idées li ma bëggoon wax rek parce que am na ay ay góor ñoo xam ne dañuy dem ba ñoom seen salaire u jabar dañuy exiger seen jabar salaire boobu di jaar ci seen compte moom ñoom. te xam nga loolu sax war na mën a nekk parce que couple la loolu war na mën a nekk bu fekkoon ne euh, communication base bi mi ngi ci mi ngi ci biir couple bi war na mën a nekk mais doo ko imposer nit ki ne ko par force sa salaire day jaar ci man luy génn dama koy xam looy yónnee sa yaay dama koy xam looy yónnee sa papa dama koy xam wala jabar ji tamit di liggéey salaire am di jaar ci compte am weer bu dee nga bàyyi sa borom kër moom mooy fay kër gi moom mooy dugg mooy def lépp yow sa salaire nga jël ko di ci def lu la neex di ci bokk ay natt di ci dem ay te doo ko jàppale te loolu yëpp daf fi am te loolu yëpp li ko indi baax manque de communication maaleykum asalaam. bisimilah. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku sëñ Ndiaga. waaw ñu ziar ba. bisimilah bisimilah Kébé bisimilah. di ziar euh, Pape Makhtar ak Soxna Marème euh, Serigne Ablaye Diop. Euh, ñëpp rek ziar. jërëjëf ñu di di joxe benn benn. wax rek bi maanaam euh, castilor gi wala brada bi mm-hmm. nga def ci ndox teg ko ci kaw gaz bi ne ko bu fi baxe du yomb ñoo <laughs> waaw beneen beneen beneen bi ci des bi nga xam ne pour tënk rek comme que ñi ñi ligne bi dañoo bari li soxna Mari wax muy góor gi muy jigéen gi kenn ku ci nekk su fekkee su fekkee xam nga la war ci sa morom rek coow mën naa bañ a am Mm-hmm, mm-hmm. waaye li ëpp li ëpp ci nun dañuy laaj droit te duñ def suñu devoir mm-hmm. muy muy bu méttee métti ci ci fànn yëpp nag du ci sëy kese beneen beneen bi ci des bu dee ci wàllu góor ñi man ci góor ñi laay lay laay jox euh, samay conseil parce que góor ñi ñoo gën a nekk ci euh, wet gi gën a metti góor gi li muy li muy li muy jiital pour muñe ko njabootam lii rekk la day jàpp ni moom suñ borom mi ko sàkk indi ko liñ ko digal zéro virgule cinq ba jëfewu ko doxewu ko waxewu ko te taxul suñ borom jéppi ko ba wër wërsëgalatu ko kon mm-hmm. léegi loolu war na ci mën a teg tànkam di ci muñale ñi nga xam ne ñoo nekk ci suufam mm-hmm. waaw foofu rek laay laay yam comme que ñi ci des dañoo nekk ci ligne bi te bëgg a dugg macha allah ci yi ngeen fi tënk noonu incha allah jërë ngeen jëfe amaanillah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maaleykum salaam jërëjëf maaleykum salaam jërëjëf. maaleykum salaam waaw xam naa ni thème bi moom tey jii mënees na cee wax fii ba suba. ndax position yi ak réalité yi ñuy dund ndax. comme ni bu ñu taxañ de Pape bu ñu taxañ de. non taxañu ma leen sax damay damay dem ñu avié wu si conclusion yi ndax daanaka boo xoolee ñun vingt deux heures trente lañ daan arrêté fan yii rek dañoo xaw a. dañoo xaw a dañ doon xaabaabal rek waaye euh, ah. maanaam pour ñu ñu fexe jéem a conclure rek ndax léeg-léeg waxtaan bi daf ci am solo waaye conclure bi tam day gën a day tax bisimilah. man la sëñ Kan. waaw bisimilah waaw ma ma barkeelu ci rek ma ne. gis nga gis nga loolu soxna Mariam wax. buñ ko jàppee waxi jigéen rek maanaam dafa nekk lu am. Hmm. problème bi mooy dañoo xaw am problème tuuti communi communication yéen ñëpp wax ngeen ko. Mm-hmm. xam nga problème mu communication bi mooy ñun suñu wàllu bopp yàlla dafa ñoo bindee noonu sénégalais day nëbb loo xamante ne li muy nëbb da koy gaañ. Mm-hmm, mm-hmm. feeñoon ci lay gën a yomb. man eh, soxna si la jox benn exemple. def naa foofu parce que mën naa ne def naa fi vingt cinq ans Italie. yoo xam ne vingt cinq ans yëpp koy liggéey. maa ngi ak sama pap mu xam na gis na gis na sama soxna maa ngi sama soxna ak samay doom hmm. eh, gis nga man bi ma liggéey ba sama soxna ñëw fi damaa njëkk def benn kii programme boo xamante dañoo toog ci benn béréb ma xamal ko man salaire bi may jot yépp won ko bus de paga biñ may fay nangam la hmm. fay Hmm. sumay dugg mars ci laa ciy def sénégal ma fi bàyyi samay parents fi nangam la wara a yone a yónnee daj tek ko ci kanam mu xamne bu ëllëgee mom du taxaw ak man néma nangam di nangam ak nangam yam tek na même fekkee man mako momon té mom ko mais lima doon bëgg moy communication bo xamantene bu lèr la hmm hmm, hmm. bi bi bonus maternité yi tàmbalee am dañuy and dem commune ma laaj leen waaw bonus bii di génn nii kan moo ko moom commune bi ne ma xanaa ki demoon ci taabal ji. Mhm. ji moo ko moom. xam nga loolu leer na ma. u mhm. bu ñu ñëwee ci kër gi ma door ne ko waaw léegi lii nee na ñëw yaa ko moom. mais doom yi jur comme ni ma ko jure xam nga li may fayeeku ni mu toll xam nga li ñuy fay lu yaas ni mu toll xam nga li ñuy lekk ni mu toll. Mhm. naam su fekkee man la war naam su fekkee man la war. est-ce que jaadu na tey ma toog sama doom poñe ma wala kenn poñe ma ne nangam li da ko waroon a participer te participer ko ko waroon defal te aw ma mm-hmm. dana am xelum ci ne. ginnaaw am na loola te luñ ko joxoon la. bala ko koy kenn nay laaj am na lu mu ci war a participer ci biir kër gi. Mm-hmm. bi mu demee bay liggéey ba tàmbalee liggéey di liggéey heure yu ndaw ma woowaat ko mu ñëw mu xamal ko ne ko lii ngay liggéey yow yaa ko moom. waroo cee mm-hmm. participer ci kër gi dara. benn dërëm bi gën a néew waroo ko participer ci kër gi parce que man maa war a yor maa war a sàng maa war a jox mu lekk maa war a def lépp. ay mm-hmm. mm-hmm. itam am lu la lislaam sant. Mm-hmm. li lislaam sant mooy absent yi nga am ci kër gi da koy fay. parce que yaa war a toog di togg di raxas di bale. te daf dafa wax ne même boo nekkee sa borom kër yow ngay liggéey même boo jëlee mbindaan sa borom kër waratu koo fay yow yaa war a fay mbindaan yow. mi fay te bi mais yow sa jëkkër waratu koo fay. Mhm. ginnaaw yow fayoo ba daante man maa lay xaar yenn heure yi ci biir kër gi yow nga may xaar yenn heure yi ci biir kër gi kon du xel wala du ag ngor nga jël li nga am lépp def ci sa compte bàyyee ma heure yi nga xamante ne man maa la ko doon dimbale ci kër gi. dëgg la. kon yow da ngay participer mu mel ni kon li nga doon wax lépp pour tëjal la foofu rek. mooy mhm. damay gis ne man ñu ragal communiquer. Mhm. su fekk ne communiquer moo leen di dimbale. dëgg la dëgg la. ñu ci bari ñàkk kumpa la xam nga jigéen boo ko woo nga ne ko tey am na ñaari doom seenu familiar Italie ni mu tuutee nga xamante ne parce que bu dee ñaari doom ak parce que ba weesu daanaka quatre-vingt-deux euros <laughs> fekkente ne kuy fayeeku salaire bu baax nga sax bu sa salaire yéegee daanaka du jege loolu sax far xam nga mm-hmm. kooku nga wax quatre-vingt-neuf euros yi lañ ma ciy jox mais quatre-vingt-neuf euros yi man maay fay école maay jëndi course maay dem maay def nangam maay def nangam bu fekkente ne jigéen joo xamante ne ju xam la euh, léegi quinze mille yem cee am wala trente mille eh, trente mille yem cee am trente mille yooyu bu weer wi jotee nga fayee ko jox ko ne ko sarse ci téléphone def ci say nangam a nangam bu boobaa coow dootu am mais li problème bi mooy nit ñi communiquer ak seen famille yi sëñ Pape moom bu yi dañ dul communiquer ak seen famille mooy dañuy jàpp ci ne ni nekkoon Sénégal rek loolu moo war di continuer man maay kilifa waaw kii maa ko yilif lu ma neex def loolu la ñuy wax loolu la ñuy doxee ay pour loolu l'islam waxul loolu l'islam wax na ne yow yaay kilifa gi me na du la du la neex l'islam tënku la ne la du la neex def. déedéet la tënku yéen a ko bokk. da ngeen a war a toog di ko waxtaane ba ci gis nga même fi ñu toll nii bu ci problème mu problème mu jigéen ak jabar tey fi toll am nga droit yow ci ne damay takk ñeenti jabar mais jabar ji boo koy takk dañ ne la l'islam daf ne la da koy gaaral li nga bëgg. Mm-hmm. loolu la man du ma yem ci benn jabar damay takk ba ñeent su ma ko mënee. jigéen gi ne la man du ben jëkkër képp la yam du ma sama jëkkër du tak jenen jabar. bu ko mëne sëy bu ko mënul ko soo na nangee fekk ci ngeen and ci lolu soko nangu wuté fekk ci nga bayyi ko te de wuti kanen momu de wuti kanen lolu kay leer na mais nak duñ ko interpréter nonu ak communiquer guñu ñak communiquer tay moy mooy indi ay problème yi parce que jigen amna sañ sañ taxaw ak jëkkëram ne ko bala nga may tak dañuy signé contrat ma ak yow contrat bi moy duma wujje duma wujje gor gi ne la man man naa ko ci yow kep la yem bu boba bu ko defete lu aram la def parce que amu sañ-sañu def ko Mm-hmm. te bu ko defee yow am nga sañ-sañ laaj say droit ci l'islam su ko defee tey bu demee ba nga xamante ne yow nee na la man kat mënuma ko parce que du ma yor benn jabar mu dem seeti keneen yow nga seeti keneen mm-hmm. mais yëpp tey ak yi ci biir kër gi ñu war koo waxtaane maanaam ñàkk guñ koy ñàkk a waxtaane tax na dafay indi ay jafe-jafe mooy confirment boobu ngay ci biir kër gi gis nga maanaam confinement bi indi wu ko da ko yokk da ko yokk fi nekk xëy suba ba jant bi sotte déwuma àtte ji wala déwuma defar atu sëy mës ta nekk musuma mhm. xëy suba ba jant bi so mu defar ay sëy heure bu ma xëyee ci loolu laay may wàcc nga xam ne kon mi ngi fi woon mais yokk gi mu ko yokk mooy toogoo gi ngeen xam ne vingt quatre heures sur vingt quatre heures da ngeen di bokk di toogandu benn béréb mhm, mhm. ku nekk sa jikko day feeñ kenn ku ndax góor gi doon liggéey sonn bu dikkee tëdd nelaw léegi sonnatul mi ngi ci kër gi deful dara ay jikkoom day génn jigéen li nga xamante ne da doon di dem ci moroomi jigéen nan dem supermarché yi jënd nangam nangam toog ci kër gi xale yi di ko sonal guddeeg bëccëg moom itam jikkoom day génn bu jikkoom génnee nag li waxoon léegi te sëñ Pape Mokhtar wax ko léegi te kenn munta muñ bu amee kenn ku tëlee muñ rek problème am ci biir kër gi. Mhm. macha allah indi lépp ñàkk waxtaan la ñàkk communiqué la mais communication bi lañ wër a ragal nañ fexe ba communication yi di leer gis nga nit boo ko xasee ba jëlee fii jëlee ko ci ay waajur li ngay def lépp na leer bu la mën a sosal la mën wax lu nekkul. Ah, mais xam nga sëñ bi ñun góoru sénégalais ak ñama ko sañ a wax ñoom seen kilifteef la ñu bëgg fu ñu dem fu ñu dem wone ko fa te li leen war duñ ko def parce que yow sa kilifteef pour mu mat il faut parce que nit ki soo ko yilifee am nga ay droit ci moom moom tamit am na ay droit ci yow mais yow li nga war a wax ak moom dee ko wax ak moom bul ne rek kii may maay kilifaam mën na def lu ma neex te ma ko ko wax loolu mooy erreur bi. dëgg la dëgg la dëgg la loolu mooy erreur bi mais mooy erreur bi mooy tamit nag soxna Marème mooy seen erreur tamit yéen parce que mhm. mooy. seen yeneen waaw lëb yi dana rafet am nañ ay problème mais yéen tam da ngeen am ay problème parce que yu jeex da ngeen di dund ci ñaaw njort maanaam nekk ngi kii li muy liggéey salaire bi doyul mënu cee fay lu yaas waaye li wax dara du ci na cee fay lu yaas te mi ngi des mais mi ngi koy yónnee geneen ju mi ngi koy geneen ko man mais mi ngi koy geneen ju mais li nga wax li nga wax bu ko ko ki doon def xam nga problème du am wala mi ngi koy yónnee yaayam wala mi ngi koy yónnee yaayam wala mi ngi koy yónnee baayam ñaareel ba tamit mooy yow say waajur yi nekk fi bu fekkee duñ waajur yu yaru ñoom itam ñi ngi lay influencer lan lan lay influencer mm-hmm. mooy diw mi nekk mi ngi tabax kër te yow ba mu fi nekkee ba léegi ak sa jëkkër mënoo def dara mm-hmm. te xamuñu ne seen kër yi tolloo wuñ lu ñuy yor ñoom ñaar mm-hmm. loolu day fa indi ay problème parce que si yaay daf lay tàmbalee wax bi ñu léegi yaa ngi taxawal sa morom ngi def naan te xam nga jëkk jigéen ji Euh, jigéen ji erreur bi mu def foofu mooy jigéen ji sant ñu ko woon muy defar ay xam loolu moom itam sant ñu ko moom muy defar ay kër Sénégal di ber ko sant mu sëy mu defar ay kër Sénégal même bu amee alal ju bari alalam nu wut fu ko denc ku ko neex mu joxe ci mais sant ñu ko muy defar kër ngir bu ëllëgee bu bëgg a beru bàyyi fi jëkkëram wala mu def yan yooy itam njuumte la yoo xamante ne mi ngi ci biir xam a ñoo ngi jégalu bu baax a baax sëñ Pape jël nañ ci wax. bi tey moom xam naa ni xëy na Marème dafa yaakaar ni dañ koy sot te yàlla non non non non euh, man modérateur là, parce que aussi xam nga euh, thème bi dañ ci dugal rek confinement bi dañ ci mm-hmm. dugal xeyna peut-être dañu jël centraliser trop maanaam diggante jëkkër ak jabar mais tay ji buñuy ñuy trouver bu wax kaw confinement yi kay yi bëri na ndeysaan. sa bëri wax mais xam nga loolu la ki wax ci début bi kay yi bëri na mo tax ñu dugg ci couple rek mais. benen bi ñu koy defar dugg nag ci waaw mais xam nga auditeur itam tam auditeur yi mm-hmm. dañuy dugg di di participer à travers euh, plateforme bi ndeysaan wa wa mhm. garage Touba chauffeur yi ñu mhm. may wax ni ma nañ leen tuddu ñoom ndax à part <laughs> à part à part force de l'ordre yi ak mhm. euh, personnel médical bi bokk nañ ci ñi ñu war a jaajëfal ndax ñoom ñooy yóbbu bagage yi te ñu ci ëpp dañ leen confiné te wax dëgg fa yàlla ñu ngi dund situation bu metti ndax nag dañ koy wax trop sëñ Modou Diouf duggee mi ngi koy expliqué temps yi ak problème médical yi Euh, mm. dañu tëj presque euh, maanaam toilettes yi da gis vraiment keroog gis naa benn femme française bu def benn vidéo vidéo bu ko gën a choquant amul. ndeysaan di jooy di wax ni ça fait cinq jours mi ngi daw maanaam demagul këram te ci kër kër doomam këram la jëm nar fa fekki doomam xamul ndax yor na Covid bi sanguwul maanaam di wax condition yi yi kamuy ni si di dund jamono jii. nga mm. xam daanaka dañ leen dañ leen di ber. Euh, di leen di leen di leen di leen parce que wóoluñ leen comme ñoom dañuy dugg fu nekk. Euh, yooyu waaw mën nañ nekk porteur sain. Mhm. voilà ñu ci ñu ciy waxtaan mais aussi cas yi parce que xam nga comme dëgg la famille yi léegi bari nañ fi mais boo xoolee des fois problème yi gën a bari mooy mooy par exemple góor yi nga xam ni dañuy dëkk ensemble. Euh, en général foofu foofu sax la situation di gën a méttee léeg nga gis ay góor yoo xam ni dañuy dëkk 5 6 mhm. ku ci da ñëw ñëw sa jikko bopp yore sa espace su bopp maanaam euh, socialisation bi léeg-léeg du du dem ni mu demee foofu tam réalité confinement bi dañ koy dund bu metti yooyu yëpp nekk na ay cas yoo xam ni waaye kaaw famille yi moom bokk na ci li gën a marqué parce que toujours bu fekkee xale dafa am ci biir mm-hmm, xale mm-hmm. dafay am benn dégât bu muy subir boo xam ni euh, defe naa ni bokk bokk na ci li ñu war a gën a prioriser di ci taxaw waaw kay loolu laa la bëggoon wax pap parce que xam nga bu fekkee ne ay góor lañu da ngeen a dox daje bokku kër loolu vous n'êtes même pas tenu ngeen dëkk parce que ku nekk boo ci gisul sa bopp mën nga xëy jël sa sac dem sa yoon te bu fekkee famille la nag ce n'est pas le cas parce que famille vous êtes appelés à rester ensemble parce que dans le dans le pour le meilleur et pour le pire donc te foofu comme li nga wax léegi dafay am enjeu bu bu am importance parce que bu dee dafa am ay doom ci biir doom yooyu en fait fi parce que fii comme li ma waxoon rek ci kaawu dem ñu résidence surveillée dañuy dem ba nga xam ne léegi xale doomu sénégalais yi léegi dañu leen di jël sax di leen wutal ay psychologue ñuy wax ak ñoom parce que dañuy traumatisé te xam nga loolu tamit c'est un autre aspect boo xam ne avant confinement bi la loolu am te problème ça veut dire que kon problème couple yi ce sont des problèmes sérieux parce que ay góor moom bu ñu dëkkee ku nekk si tu ne retrouves da xëy jël sa saak dem sa yoon dem wuti foo dëkk mais bu dee couple lañu nag là ça devient parce que jëkkër la ak jabar ak ay doom te loolu c'est un nucléo familiare loolu mooy tax mu gën a graaw maaleykum salaam maaleykum salaam jëriñ waaw sëñ Pape ñoo ngi leen di ziar bu baax ñu ngi ziar bu baax Diop waaw sëñ Ablaye Diop waay sëñ Pape Makhtar ñoo ngi ziar soxna Mariam sëñ Mahmadan sëñ Sëriñ delloo ziar delloo ziar <laughs> jërëjëf ñu ngi ziar sëñ mi génnoon léegi ñoo ngi leen di ziar bu baax yéen ñëpp waxtaan wi jërëjëf gën na tuubal suñu borom rek di ko wax ni daal ñoo ngi ñoo ngi jéggul rek ba ñoo ngi daal ñoo ngi ñàkk jom lool rek bari tooñ rek mm-hmm. Mm-hmm. nanu nanu rek ngir jëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barke allahumma amin allahumma amin ngeen andi tam yu am solo ni ko ni ko sëñ eh, Ndiaye Kébé waxee rek ak ak eh, ki génnoon sànq nee na tam yi ngeen fi andi daanaka benn bu ne waxtaan xaju ci daal dafa dafa bari am solo allo mm-hmm. allo am na ko am de Sona Fabirala. Salam alaikum. Alaikum assalam. Um leziar. Sim, ah, ninguém sëñ bi ñu ngi delloo ziar bu baax a baax. waaw ah, kooku soxna Fabira la mooy présidente Bay Sawar. ah ok ok. waaw. Eh, xam naa ñu ngi lay dalal soxna si micro yi. ki war a wax rek wax non dafay jaxasoo daal maa Fabira ñu ngi lay dalal. allo. allo allo waaw. dafa mel ni dafa génn réseau bi mooy xaw a déconné ah, tuuti am na ci ku xam ni kii am dafa am écho. déplacé wu naa waaw moo tax may ñaan ñu tëj micro yi parce que bu ñu baree. micro yi day day day indi retour. dëgg la dëgg la waaw kay euh, sëñ sëñ Pape Demba ñoo ngi leen di ziar ba. Euh, di rafetlu kàddu yi am naa di waaw di di di di brosser rek ni ko ni ko sëñ defee léegi. Euh, li ngeen fi di wax dëgg yàlla neexut neexut a parce que dafa bari xam naa fi soxna Marème Thiel fi laay sofee. muy lépp daanaka base la base la ndax damaa jàpp ne man euh, sëy yi nga xamante ni dañoo am jafe-jafe li ci ëpp boo xoolee base bi mooy kenn ku nekk rek xëy na boo amee jafe-jafe xëy na mën naa am ci àdduna mais boo jëlee fa nga war a jëlee problème du am daal te lu ci bari ñun gis nañ ni sëy yu bari li ma daan wax ni bu Italie tasee sëy yu bari tas te gis nañ crise bi fi xaroon xawoon a jaar tas na fi sëy yu baree bari andi na fi conflit yu bari bari parce que lan moo ko waral mooy ñun liñ baaxoo woon mooy lan daan takk mooy euh, cassette vidéo lañ daan takke wala Viber mi fi xewoon wala Skype mi wala ñu wan la photo nga ni may ma ko tàmbalee woote daal di ngoro te fekk bu doon yaa nga woon biir Sénégal kooku ñi ma woo fa nuyoo ji o koy ñaari soxna man li may faral di waxat man man bu ma génnee li may njëkk def mooy namm sama kër ndax jàmm ji ma fi am euh, xam naa ni ki ma nekkal am na ci man yërmande yërëm naa ko bëggante nañ donc loolu day doon loo xam te jël naa ko fu ko a jëlee loolu day doon base boo xam ne day tellu ci ki nga xam ne daa eh. dikkoon ci sëñ bi yor doomam te ne ko sëñ bi damaa bëgg nga yoral ma ko sëñ bi ni ko ci de yar ko yar ko weesoon sa googa gone mi ngi am juróom benn at mu demee ba am keneen kooka am daanaka ñaari at bay tàmbalee dox mu gàddu ko daal ni kii moom xam naa bu ma yeggee sëñ bi dana ne ma ni yar naa ko indi bi mu njëkkee ko noo kii yar wees na mu doog a daal laaj nañ de waa ñu ko sëñ bi man kon doom ji ma war a andi ban ci wan at la ko war muniko da ngay tambale ci ndayam donc boo beugé ya da ngay tambale ci ndeyam moy da nga koy wutal ndey ju bax mais gis nañ ni li nga wax ni confinement bi bépp problème bu am jappul len ni manam germe yi ña nga fa jiwo ma nga fa woon day doga a day doga a ex eh, kii eh, explosé mais yooyu yëpp amon na fa cest à processus la ni wax ma dañ wax ni lu ci bari manque de communication communication da koy waral mais soxna marem nga andi won ci fi mais li ma gisoon mooy li taxoon ma bëgg a dugg mooy dafa dafa mel da ngaa duggoon trop de partisan faral jigéen ñi ci benn parti parce que man man damay def acquitté parce que man li may bañ mooy fi mu toll nii discrimination mooy li ma gën a bañ cest damay damay man transit dëgg mooy yow nan nga mën a jàppe euh, sa borom kër bi nga xam ni dala fee indi moom rek mooy liggéey yow déggoo anibee déggoo lakk mu lay teete ba mu tàmbalee liggéey wan la bu sa pagaam li muy am ak lim man ak lim tële dem ci kontam defal la fa obligation nga xam ne sa firme boo fa demee sa mën faa jël xaalis suñ borom dogal nga am dem ba amub liggéey tàmbalee beru ber sa compte bopp te loolu ñun ñuy dox ci social ñun ñuy dox bi gis nañ ni loolu am na fi gis nañ ni la majeure partie góor ñi bu problème amee ñooy génn kër yi gis nañ ni la majeure partie góor ñi ci bari ñooy fanaan ci oto yi gis nañ ci majeure partie góor ñoo xamante ni tribunal leen yi yóbbu nangu kër yoo xam dañ ko jëndoon ci mutuo te sekkeel ya fay am mooy lii mu dem ba seen doom yooyu ñu nangu ko te ci doo ci loxoy nasaraan lay mujj loxoy yéefar lay mujj donc aussi pour trancher li ñu naan pour juger il faut deux benn lam du tàccu lii doxal ab sëy mooy ka nga jël fa nga ko war a jële wala boog d'accord daje ngeen bëggante parce que li ñu naan euh, l'amour est aveugle dellu leen ca bis ba ngeen xamante ni ci ngeen gisee ci ngeen di doog a gise bu loolu rek mooy doon seen ligne bu ngeen départu ci bis ba ngeen gisee ba bëggante seen sëy du dox lu la nit ki mën a def dellul ci bis booba da nga ko mën a muñal da nga ko mën a jéggal waaye da nga ko mën a yërëm da nga ko mën a defal da nga ko mën a defal te li ma gis ñun ñuy dox ci social gis na ni ñaar rek mooy indi problème ci sëy fii ñaar mooy benn waa ji takki na beneen soxna wala jigéen ji am na liggéey ni nga ko waxee góor gi teg ci teg ci bët bëgg ni dana ko def man li ma jàpp mooy jigéen ji bu doon am ay milliards man góor maa ko war a yor soxla wu ma dërëm lu jox na bu de lu ma jox lu ma jox mais da dut neex ci xolit nag li nga wax nga am un salaire boo xamante ni fii xam nañ salaire tamit demee li ngay dégg ci nuñ ko tuddee ku nekk xam ne association li ko suñu Mahmadan waxee quatre vingt neuf euros da dem boo xam ne dana dem ba trente personne loolu est ce que maanaam doy na sëkk li la gone donte yow la war kon bu dee soxna si dafa dem ba yàlla dogal mu am liggéey man li may digal samay sœur te yàlla xam na ko ndax li may wax yàlla laa koy seddeel lépp lu ngeen am da ngeen ko dimbandikoo seen sëy jàppale seen borom kër te xam ne benn loxo doyut ci kër. ni ngeen ko neexale seen sëy neexal ci ñi nga xam ne xëy na bu ngeen waxatu parce que réalité Sénégal mooy ay goro ki njëkke bu ngeen leen defalul ñu xase leen yàq seenub sëy mën nañoo tas seenub sëy la war sama digganteeg sunu yaay mi nga xam ne ñoo ko bokk man góor maa koy res kër ga sunu ndey di liggéey di war dëkkee man ko yéen bu leen ko xalaat man maa ko war a tabax maa ci dugal sunu ndey bu boobaa yéen ñëpp laa ko defal waaye mbokk guy guy jàppale sëyu jigéen moo bareetut ndax li ci bari lii lii ko sëñ Maxamad doon waxee ah yow de sa mbokkum jigéen sàngam ma nga ci tabax na këram ma nga Dakar gaare na fi otoom nangam nam jigéen ba muy dugg ci sëy yàlla xam na ni du woon pour mu wut ak kër ngir ëllëg day xalaat beru jëfa kon mooy ça veut dire mooy planifier na kañ lay tas c'est-à-dire am xel bu sellut yàlla dalay jay ci nga li ngay xalaat muy lu bon saxaw say cër jëfe ko il faut yi delluwaat ci nan daan séyee mooy delluwaat ci arpara bii sëñ maxtar maxtaar wax li pap maxtaar mooy bu problème amee ngeen dem ci ñoo xam da leen leer ni ñii sa ndey sa baay ñi ngi ñi ngi ci say cinquante ans soixante ans soixante dix ans te mos mosoo gis sa sa sa way juróom génn kër gi wala ki ci dandal ci kër ci koon bi mu leer na li kii kat li muy dund bir na leen yow bu dul sama kër di kër ki nga dendal mas nga fa dégg kër goo xam ni paa ba daa dóor meer ba ko mu toog ci kër gi te ko muñ te daanu sëy neexut naqar la ak coono noonu la ko sëñ Tuubaa waxoon jàppal ni kat sëy ñaar rek la coono bu sax dàkk ak naqaru sax dàkk naqar maanaam as gor nag nee na day muñ ay coono ab jullit day muñ ay naqar képp koo xam ne ñu ngi lay tudd di ma tudd ñaar yi doon ci benn mooy nga doon ab jullit maa nga doon ab taalibe di muñ naqar ak di muñ muñ coono dañ xam suñuy réalité buñ vaqué fii dans dans l'Europe dans l'Occident tax ñu adopté les les mesures des des occidentaux parce que amna lo xamne du suñu réalité toujours ma wax ko sëñ Maxtar Maxtar surati kii le consul général de Milan bi fi nekkon Maxtar ku yaté bi ma ko waxoon dañu mo woon un mauvais mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès jigéen ñi ak góor ñi fi di sëy nañ bay bu amé problème dem ci assistant social yi mu leen di lijjanti te ci jàkk ja lañ lañ takkante woon ginnaaw ca jàkkante lañ takkante bu amaté seeni seen i sëy nañuy dem ci ko xamanteni ma nga ci sëy wala ko xamanteni ni nitu diine la mu leer na ki lim lay digal moo moom bu doon moom moom lay def mu nefa fa moo gën ñu dem tribunal ñuy tranché ku ñu jox dëgg xamal ni perte nga ñoom ñaar ñëpp ku ñu jox dëgg nee na xamal ni perte ndax moo moo tax man man mu ne ma un mauvais arrangement mooy nga dem ci imam wala nga dem ci koo xam ne mu ngi sëy wala nga ko xam ne ku mag la mu arrangé leen ba delloo leen kenn ku ne day renoncé ci lam jàppoon ak mer mam jàppoon léegi may xelal sama mbokki jigéen ñi man parce que ci diine lay tranché bu dee ku góor ki daf laa tooñ ba ñëpp taxaw mu yëkkati loxoom en haut en ni man maa tooñ man góor gi maa tooñ ba ñëpp jox la dëgg yow jigéen ji xam nga lislaam lan lay dugal lan la lay digal après yow jigéen ji raamalal sa jëkkër ji te pourtant jëkkër jaa la tooñ léegi ana sa dëgg lan la la jariñ te boo génnoon di ko nettali sa mbokk wala sa xarit sa waay de moo ma tooñal ba gars yi ñëw nangu nañ moo ma tooñ mais doo nettali nukk man ka fa ma mujj mooy ma raamal ko sukkal ko jéggalu ko kon léegi la sa dëgg googu fan yàlla ci li ñuy def confinement bi metti na man dama jàpp ne harmonie mo wara am ci kër yi mu neex ngeen programmer seen journée bu ngeen xëyee julli ba def li ngeen di def ndekki wol goné ñu jang alcorane ñu jang khassida buñ paré ñu dem seen compte buñ paré ngeen lef lepp tok di seetaan télé di di waxtaan di fejjantey cadeau di dembu ah yow kat seen mu neex parce que tam mbett mi xeyna virus baa ngi fi kan moy genn del si dé lan ci bayyi xel suba kan mo koy fekke maa ngi tëdd est-ce que danaa yow tant de question yoo xam ne xalaatal ñi ci jaar te gënoo leen ñu dem yaa fu yóbbu leen yow mi fi toog du sa ngërëm wala yëpp tey ji giri bi kan la épargne kan moo ko xam man delluwaat ci yàlla te bàyyi àdduna bi c'est-à-dire am amu àdduna rek moo koy andi say borom kër dafa takk soxna rek tax nga mais ñun ñi ñëpp génération bi kenn ku nekk sa yaay am na wuju ngeen jéggal na ci kàddu gi lu tax nga bañ ko te diine may ko ko mu am possibilité bi te dara manqué wu la baat bi ngay dégg toujours ba dara dul dara non fu ma mas a toll rek yor naa la te na ma la ma yore kon am na yoo xam ne faaw ñuy delloo ci suñu xel te jiital yàlla ci suñu bopp parce que gis nga problème bi euh, coronavirus bi maanaam problème yi fi ay bakkaar yoo xamante ni ci lii rek la man si yoo xamante ni nga xam góor gi maltraité na jigéen ji jigéen ji maltraité na gi loolu yàlla du ko seetaan kopp doole nit du mën a ko mën ta fayu yàlla du seetaan loolu sànq sëñ Pape ci début indi na fi problème les vaccins c'est tellement réel vous ne sous-estimez. C'est tellement vrai parce qu'on a toujours été victime des, des, des, des, épreuves. On a toujours été victime des essais de vaccins. L'Afrique, Demande euh, le, le, le, directeur de l'aéroport la, la, la, euh, international brésilien, interrogé comment dire man lire naa léegi document le Javier Javier Marie. Mm-hmm. mais waa ji ni a dit que ni non, parce que toujours on a des avions cargo qui amènent les, les, médicaments contre le coronavirus. Il y a c'était les vaccins et autres. Mais quel vaccin Mais il dit journal, Il y a un vaccin contre le coronavirus. Est-ce qu'il y en a vivre Il n'y a pas de vaccin. Donc, essayez de sursurer, qui murmurer Mais c'est réel. Nous avons sensibiliser sa famille kenn ku ne na sensible yi man a sensible bu fi kenn ñëw di la naan la dañuy ñàkk dafa wala dañuy pikiir ñun ñi vivre Europe gis nañ ni tubaab du may un centime alors lan la ñuy jëli des milliards ne dañ ci dimbali Afrique c'est paradoxal Italie mi ngi ci ay 900 morts par jour Espagne mi ngi ci 1000 morts par jour euh, France mi ngi ci ay 700 morts par jour fo ñun ñoo gën a soxla médicament yi bu dee am na ñoo gën a soxla vaccin yi bu dee am na pourquoi ñu cibler Afrique lañ doon l'Afrique n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas un champ un champ de bataille nañ ci bàyyi xel ñu naan fagaru moo gën faju mieux vaut prévenir que guérir nañ ci bàyyi xel yi ay réalité loo xamante ku gëmm sa bët ni amut aussi da ngay wax loola neex nañ gënaat seetaat suñu toogaay kon suñu biir confinement bi metti na ñuy xalaat ñi nga xamante ni sëñ bi man daf may delloo ci cadre bu bare ba daf may delloo ci confinement bi ñu nekk dafa may delloo ci liggéey Serigne Touba ñun dañoo bàyyi ci suñu liberté tëj ñu suñuy kër xoolal Serigne Touba ñaata ñaata at lañ ko yóbbu confinement moom dong mooy nekk xalaat leen loolu pour xam lan mooy dimension si Amadou Bamba lan la ci jële ak muñ la ci jële ndax inna allaha maa saabirina waaye ñun xoolal ñun dañoo tëj ci biir kër yi ñu ngi lekk kanaan li ñu bëgg di naan li ñu bëgg di tëdd fi ñu bëgg ndax suñuy néeg la suñu famille lañ nekkee kon xëy ci biir

mën na ci jànge loo xamante ni ñun ñëpp dañuy indépendant ci suñu bopp rawatina suñu réew mi ñu wax euh, soixante ans soixante quelque temps de d' yoo xam ne mënoo am autosuffisance alimentaire mënoo am eau potable mënoo am des tables lampe pour les élèves mënoo am des médicaments même l' alcool ou bien l' aspirine ça manque ñuy wax indépendance est ce qui a marché dans ce pays ku feebar dañ koy évacuer démb gën ngeen le ministre il y a un malade qu'on a évacué demande de ses de ses de ses la am loolu kon discrimination déjà amna na bu dee nañu évacuer nit ana confinement ba donc on fait des lois li wañ waji wax ni juge yi dañuy tok bind ci sen ginnaw ni la loi est égale à tout le monde c'est-à-dire que yow mi nek ci kanam diko ko jàng yow lay conserver mais man du man juge bi donc les dirigeants doivent faire preuve de conscience ci li ñi def am des conscience professionnelle li ñi inconscience professionnelle lañuy doxé doxee poste yi ñu occupé sax xamuñu lan lay jëriñ ay salaire mo leen yitteel sëñ Maama dem wax na ko léegi confinement bi mu amee ba léegi ñi nga tëj ci kër yi amul benn lekk boo leen fa fekk amul benn naan boo leen fa fekk demal daaru musti wax na ko léegi il parle en connaissance de cause kon ay point yoo xamante ni maa ngi guddal mais mën nañ cee def débat bu bëree bëri mais li may jiital daal mooy sëñ bi ak muñ rek moo mën a jàllale nit ñi confinement bi metti na góor a borom kër ak soxna waruñoo xuloo waruñoo xeex war nañoo seet surtout nag njaboot gi gi nga xam ne moom leen yàlla dénk te am na ñoo xam ne sax da leen koo xañ leen ko xañ gan nga war cee sant yàlla te booy xuloog sa soxna sa sa doom toog bu dee ko góor gi la muy jàpp mooy mooy man ab oh, terroriste laay doon rek man bu ma màggee tam bu ma yoree soxna dama koy gëdd ak saaga ku jigéen ki nag gis loolu bo xëy na doom ji jigéen ji sensible ah man de du ma am mukk jëkkër ginnaaw lii mooy ab sëy teg teg sëñ bi li ngay jàngale boo ci nekkee loolu noonu noonu lañ koy copier ni ngay jaamoo yàlla gone yi di toog ci si jaade gi ak si si kara ko yori kurus noonu lañ ko te doo leen ko wax daal dañ koy copier même violence bi tam dans les demeures conjugales noonu lay demee nit ñi ñoom dañ koy dañ koy jànken noonu répercuté seen nature noonu la ñuy màgg suñu màggee góor ki day terrorisé jigéen jigéen ci moom sax jël jëlu bu takk góor wax ko borom këram rek loolu rek peut maa ngi maa ngi. ligne bi baaxatul de. waaw sëñ Ablaye dafa mel ni yaa ngi dugg yaa ngi dugg daaru xasanaat de. waaw <laughs> waaw moom kay xanaa bëgg bëgg lépp rek xam naa ni xabaabalati nañu rek comme niñ def euh, niñ koy defee temps yi semaine yi naa ni weer wi moom amul benn jour bu ñu respecté temps bi mais nag euh, émergence sa oblige xam naa ni ñi ngi bi damay joxaat gars rek ñu tëj euh, joxe kat sëñ Paap waaw est-ce que soxna Faabira nekk biir allo bismillah mom xana telegram la doon wote xam telegram la doon wote est ce que du doon def écho bobu kon bismillah soxna si wa assalamu alaykum allo assalamu alaykum dafa melni nak dafa dafa gennat dafa gennat kon dafa melni dafa genn de allo legui euh, kon nalen len jox rek ñu defaat dernier tour euh, ma jox len ngeen taggo comme ça ñu ñu tejj ko xamna ni li li olof di wax li duuf ci nak bi yeb xajul ci cin li allo tey jii defe benn benn confinement rek la ñuy wax confinement couple bi euh, famille bi dese naa des na yeneen confinement yi du ñàkk dinañ ci ñëwaat beneen dimanche incha allah soxna Faa Malem. waaw. waa ki ki intervenir léegi nu mu tudd sax. Ablaye Diop allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum ah, salaam ah soxna Fabira dugg na. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ñu ñu lay dégg Fabira ñu dégg ñu. waaw dafa mel ni dafa peut problème mu réseau lay doon. pourtant maa ngi leen di dégg bu baax a baax a baax macha allah. ah waa ñu ngi lay dégg waaw parce que fallait que ma participer ndax sama mhm. càmmiñ boobu euh, taal maa ngi leen di nuyu yéen mhm. ñëpp vraiment ku ci nekk ak sa tur sa sant. Mhm. maa ngi rafetlu lool euh, plateau bi wax dëgg yàlla li ngeen fi wax yëpp am na solo. waaw di amoon tuuti rek lu ma si doon sànni allo. alo allo ñu ngi dégg. allo. ñu ngi dégg. waaw. ndax allo day day day ay ndax tey léegi mariage naam dëgg la jigéen ñi am nañu problème parce que dañu jël mbubbu nasaraan sol ko te loolu waruñu toujours dañoo war a bàyyi xel ne rek Afrique la ñu woon Sénégal la ñu jóge ñu jël loolu jiital ko bu soobee yàlla dinañ mën a nekk suñu borom kër yi pendant tout la durée ci confinement bi te duñu am benn problème loolu daal laa amoon euh, lu may euh, conseiller sama mbokku jigéen yi nga xam ne ñoo nekk extérieur suñu wàllum consommé local tamit ma sànni si tuuti ndax euh, sëñ Paptal moomu toog ci plateau bi mu nekk sama càmmiñ ba nga xam ne boobu léegi ñu ngi ciy taxaw pour wax ci vraiment pour euh, ñi bàyyi xel ne suñu consommé local lu ñu war a gën a fësal la gën ci bàyyi xel bu soobee yàlla incha allah dina doon suñu njëriñ dina doon aussi suñu njëriñu réew incha allah. waaw Faby yow xam naa yow la jël émission spéciale parce que. yor kuréel bu à Espoir ngeen di promouvoir consommé sénégalais eh, di jàppale aussi association soxna yi jigéen ñi nekk au fin fond du Sénégal di leen jàppale di len taxaw ci organiser len ñuy défar yenn produit yi yéen ngeen koy wane ci àdduna donc lolu amna solo ba nga xamante ni yaakaar nañu waxtaanee ak jëwriñ yi bu suba yàlla dana la defal émission spéciale ci loolu rawatina nag seen taxawaayu jigéen ñi ci ci wàllu woowu dèjà nëga ni démb euh, waroon nañu lëkkaloo ak euh, seen euh, plateforme bi pour jëmmaloo fête de l'indépendance fii wane suñu ay mais yàlla ak dogalam ñëw waaw kon sëñ Pape ma bàyyi laa soxna Paa bi daal. jërëjëf waaw dafa mel ni nag dégg bi taxu koo leer. Ah. ndax mi ngi def echo xam naa du ñàkk parce que dama seetlu ñaari yoon yi ñu dugal euh, telegram bi yëpp day am echo waaw ñu ngi koy sant bu baax soxna si di ñaan suñu borom may ñu fekkee ak tan ba ñu gën a mën a mm, euh, gisewaat ndax euh, ndeysaan bu dul woon événement bi tey jii defe naa ni démb. Euh, waroon nañu organiser initiative bu mag fële ca Parme euh, ce n'est que partie remise xam naa ni euh, yoon yamul ci benn waaye du ñàkk sax bés dinañu mën a dinañ mës def programme diaspora pour waxtaan ndax vraiment defe naa ni yooyu itam ay thème yu ñu war di waxtaan sànq rek sëñ Mouhamadan mi ngi ciy wax ci xew maanaam ci wàll wi nga xam ni mooy nit ki fonk boppam fonk boppam weesuwul li nekk sa

di ko transformer sunu bopp éviter yenn euh, manipulation chimique yi euh, loolu dafay gën a indi wér yaram ndax boo leen xoolee sunu maam yi euh, ba ba ba ñu tubaab yi indilee eh, seen produit yi ñuy utiliser ba léegi ci la wér di commencé feebar yu bari ci la ci la am loolu nag il faut nit ñi gëm ko gëm ko parce que gouvernement bi lum ko imposé lum ko campagne bu mu def te nit ñi gëmuñu ne tey jii ngay dundee ay cere di reeree di ndëkkee di ndëkkee par exemple fonde yu mel noonu euh, euh, euh, bokk na ci li li li lay gën a may wér ay tekit dina tax nga mën a économiser ndax it yaakaar naa ni le panier de la ménagère dafay changer kon yu mel noonu bokk na ci li nga xam ni ci ay thème d'actualité la parce que man man man li may wax dama ko gëm maa ngi leen di wax ni leen man gëm naa ni corona bi dafa war a nekk opportunité ci Afrique bés bu jàllee nga xam ni Afrique bu ñu Europe woowee li ñu wax maa leen dimbale ñu ne ko soxlawuñ sa ndimbal waaye nag ci kaw euh, ñun nit ku ñuul ñu gëm ni suñu réew ñun ñoo ko wara mën a defaral suñu bopp te duñ ci laaj kenn ndimbal kon gars yi mel na ni waxtu wi ñu joxoon romb nañ ko lu bari xanaa damay jox jëwriñ maseer rek mu tàggoo bu ñu paree jox suñ pap jaaraat ci soxna Marème euh, euh, ma ma tàggoo ñu jox suñu Ablaye mu tëj ni mu koy defee dimanche bi jot sëñ maseer waaw ci waxtaan bi vraiment maa leen di déglu yéen ñëpp Eh, li ma mën a jàng joxtaan bi daal mooy man sam bopp man jàng naa ci bu baax a baax baax ci li ma fi dégg eh, ci dalee ci sëñ soxna soxna Marème sëñ sëñ Mamadan sëñ Partal eh, sëñ Ablaye Diop ak yow moomu li wax wax dëgg yàlla man gis naa ne man sama jëm bopp man jàng naa ci lu bëree bëree bëri ni ma ko mën a résumé nag ni ma ko jàngee mooy nit moom fu mënti nekk ci àdduna dafa war a jiital ci ak dundam gëm gëm nag yàlla la ñuy gëm xam ne lu am ci moom rek yàlla moo ko dogal ñaareel bi mu boole ci muñ parce que àdduna dafa bëri ay ay ay te bu nit dee dund ci àdduna ak lu mënti doon te boolewu ci muñ day son ñetteel bi mooy ñu bàyyi xel ne thème bi ñu doon waxtaanee tey da nga xam ne nii xëy na moo gën a jël parti bu gën a yaatu ci waxtaan wi muy lu jëm ci wàllu kër yi ak euh, dund bi ñuy dund ci ci réew mi ak suñ suñ facteurs yi ñu ci wax yépp am na te it lu réel la lu ñuy gis sax bis bu set la waaye am na ci boo xam ne nii dafa dafa naqaree xeex xam naa def loolu war a laaj beneen waxtaan mooy facteur environnemental maanaam dëkk fi ñuy dëkk fi ñuy dund réew mi ñuy dund mooy mooy société boo xam ne nii te ni nga ko xamee muy société occidentale yi li ñuy li ñuy dundee ñoom dafa bokk nag ñun nañ xamee dundee ñun ci suñu réew donc loolu dafay dafay joué bu baax a baax a baax góor gi mën man mën mën a doon jàmbaar jigéen ji mën a doon jàmbaar mën nañu doon muñkat waaye li leen wër day dafay dafay joué bu baax a baax ci seen dund loolu nag xam naa ne sensibilisation donc donc moo ci mën dara ci ni moo gisee comme ni ngeen koy defee nii maanaam fexe ba à chaque fois ñuy sensibiliser nit ñi ci luñ mën ci ci ci ci ci ci ci ci ay digal Euh, ñaan daal yàlla mu mu mu doon ñëpp rek ndax euh, ndimbal yàlla daal moom moo solo kon yàlla nañu ko dafa defal maa ngi bañ comme dañuy dañuy tëj ma yem foofu ba benn yoon incha euh, jërëjëf jërëjëf sëñ Massaer ñu ngi siyaar bu baax bokk ci kuréelu CADES bi dëkk fële ca Veneto bokk ci représentant CISLI mu mel ni kon tey jii maa ngi koy wax rek ni communauté sénégalaise am nañ lu jafe. ndax tey jii rek ñuy wax xoolal fi mu ne nii ñu ngi ci plateforme bi Will mi ngi fi Cizle mi ngi fi Cigel mi ngi fi soxna Marème nag ñëw fële moom doon sunu <laughs> sunu sunu sunu sunu sunu Syria jiina kon mu mel ni. <laughs> plateforme yu bari fu ñu nekk daanaka communauté sénégalaise bi euh, euh, fu nekk la waaye di jóge bu ñu tegee waxtaan boole xalaat yi mu doon lu extraordinaire loo xam ni saa su ne. war nañ ko mën di euh, di valoriser ba nga xam ni euh, dafay jëriñ askan bi waaye léeg-léeg tam euh, mooy loolu rek damay bañ tey ji jaar fa xam naa ni moom comme soxna Marème moom tey ji moo moo teewaloon soxna yi naa ko jox rek mu tàggoo ba ba dimanche ak jàmm incha allah <laughs> waaye ma leen di xamal ni ngi waajal émission boo xam ni ci wàllu famille lañ ko bëgg a maanaam ak tout tànk yi te su boobaa xam naa ni soxna Marème moo koy féetewoo Euh, ñi ngi ñi ngi koy xaar di ko waajal waxtaan nañ ceeg euh, technicien ba rafetlu nañ ko ñi ngi ñi ngi ñi ngi seet ci ban forme lañ koy def waaye incha allah soxna Marème moom dina féetewoo euh, programme am boo xam ni moom soxna yeeg njaboot gi daal lay lay féetewoo di leen yee te it di yaatal di layante biir mu doon benn émission boo xam ni ci bien-être famille ak cadre familial lañ ko fas yéene féete soxna Marème ma jox la kàddu gi nga tàggoog mbooloo waaw jërëjëf Pape jërëjëf merci beaucoup waaw boobu baatam da nga ñuy jàppale rek xam nga li may wax rek il faut ñuy complétente émission bi moom même bu dee maa koy def il faut ngeen ñuy jàppale mais nag euh, sëñ boobu duggoon sànq nee na man dama dama xaw a féministe waaw <coughs> je suis féministe mais nag féminisme bi du tere je suis objective quand même parce que du ma faral góor jigéen ñi rek bàyyi góor ñi man je défends tous les deux cas parce que xam naa li nekk côté bi xam naa li nekk côté bi donc ñaan yépp laay défendre donc féminisme bi du du wàññi dara sama objectivité. soxna <laughs> Marème di nga di nga fi nii man man ah. jigéen jigéen ñi laa gën a faral waaye waaye waaye waaye man moom damay li ñu wax rek alxaq wala kaan muran maanaam. damay objectif aussi mais jigéen ñi laaj parce que dama leen yërëm man moom jigéen ñi moom ñoom ñëpp samay soppe lañ dama leen yërëm parce que xam naa ne dañ leen war a jàppale bu baax baax mais nag comme man maa ah. la war a maa la war a boot damay damay damay fexe ba damay ba yow am li wax béjjinu dënn ba bu mu metti ci man dëgg la dëgg la man fi may fi may tëjee rek mooy vraiment tey moom débat bi vraiment ça a été très riche parce que ku nekk rek comme li kii wax eh, masayer wax mun nga ci tirer ah, enseignement yu bëree mais tax li may wax sama mbokk jigéen ñi rek mooy vraiment ñu ñu gën a yokk muñ gën a jàppale suñu àll suñu suñu borom kër yi ci biir kër yi mais góor ñi tamit nañu xam ne ñoom seen lépp suñu lépp ñoom la war ñu ñu ñu ñu leeral communication bi di wax ak seen soxna yi parce que man li ma gëm mooy que ne communication su su manqué ci couple rek euh, quatre-vingt pour cent yëpp day ay problème lay doon parce que communication bu ba am comme li seigne dan waxone te commencement ba ne sa booster paga nga ñëw tek ko ak yeneen ak yeneen du lolu rek sax moy communication parce que lolu côté côté xaliss la te côté xaliss su xasse dugg ci groupe rek da fay am da fay melne côté bobu rek mo wara leral digënté bi donc am na yeneen côté yo xamné lépp lo xamné ne dafa wara am ci couple bi rek man je pense que ku gor ki war na toog ak soxnam ñu waxtaan ci mu ne ko li la parce que communication su amé rek da fay da fay rataxal digënté problème yu bari yo xamné waron na am communication mën nako régler

bokkuñu ay mode de vie donc te loolu dafay influer bu baax a baax ci cadre familial bi loolu nañ ko sóoraale te ñuy muñalante daal ñuy muñalante bu baax a baax maa ngi ziyaar ñëpp di sant ñëpp bu fi amee nag lu ci dëng ngeen xam ne vraiment jublu moo ko ci woon xër rek moo tax mais jublu moo ko ci woon maa ngi jéggalu ñëpp aussi. macha allah macha allah soxna Marème sëñ Pape waaw sëñ Pape xam naa moom ci njeextal moom du ma du ma du ma tey sax wàllu liggéey beeg bonus yeeg yooyu. waaw tey moom xaju fi woon. <laughs> waaw ay moom tey ci beneen cadre mais nag gis naa ni auditeurs yi apprécié nañ ndax gis naa ay jot naa ay message yoo xam ni macha allah gars yi ñu ngi rafetlu thème bi ñu la parce que tey dañu génn complètement cadre fi ñu xaar nekk ñu woon. sëñ allah. dëgg la xam nga c'était important vraiment ñu def ay njàngat ci jamono confinement bi. parce que sinon bo topé décret ak nangam ak nangam eh, waxtu dëgg yàlla doo fi jógee te ñun ci suñu bop euh yow yaangi def ay ay ay live man ma ngi ciy def eh, kerok kérok def na euh party, am na yenen parti yu mo wara def xam nga eh, donc wax dëgg yàlla ñu ci bay suñu war pour jema a information bi à domicile Euh, pour que sénégalais yi fépp fu ñu mënti nekk rek ñu yóbbul leen information juste et réelle boole ci mi ngi def live eh, eh. waaw Marème vraiment boo xoolee Facebook lay ajourné aussi par rapport ak ci li muy yëngu te lay ah. ajourné nombre de malades yi et tout ak Italie fu mu toll ci situation bi donc wax dëgg yàlla ñun ñu ngi def suñu wàll ñu ngi bay suñu waar di wax nit ñi rek nañu invité di déglu yenn vidéo yi Euh, ñun ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñoo ngi liggéey ci syndicat yi euh, tey yor carte yi nga xam ni mooy jóge Rome ak suñu niveau régional et cetera lu agsi si ñun toq ci ñun danañ ko jël fexe nu mu àggee ci askan wi pour que ñu consommer lu baax. Euh, mm-hmm. confinement bi metti na. yàgg na waaye ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu teggil ñu ko ci anam bu gaaw nañ ko jàpp rek coono bànneex bànneex bi nag mooy njàngat yi nga xamante ni def nañ ko fii. Euh, ku ne dolli moroomam ku ne mën a yokk moroomam ci jamono bi nga xamante ni ñoo ngi nekk ñun ñëpp euh, di ñaan mm. rek euh, lii ñuy dund nii yàlla na nañu fekkee ba kenn ku ci nekk toog di ko nettali ci jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf sëñ jërëjëf sëñ wax dëgg yàlla waxtaan wi parce que nag du lu ñu préparé ku ci nekk rek boo ñëwee toog ci taabal ji lii li nga li nga sentir rek ngay génne loolu nag mooy euh, mooy diaspora te yaakaar naa ni liñ ci jublu woon rek mooy laal benn thème boo xam ni li day wane ni thème bi euh, euh, sensibilité bi am na ndax man damay wax dëgg fa yàlla léeg-léeg ma dugg ci ay diggante yoo xam ni dem defar dugg ci ay réalité toog naa fi wax dëgg fa yàlla guddi nit wooma génn ci mbedd mi wallahi alazim nima ni sama xel dama tok jaxlé sama xel demul ci kenn kudul yow musuñu gisee radio bay ñu bolé expliqué ma expliquer ma kam ni ma tey jii sama soxna daf ma génne maa ngi nii ci mbedd mi comme non la amé semaine yu yu ñu génn ko xamni dafa génne soxnaam ah, ma ma dem hmm. dox ci c'est-à-dire euh, hmm, euh manam luñu dund la maanaam ñun ñi nga xamni hmm. euh, dañuy nekk ci euh, euh ci sportel yi ñoo raw sax assistante sociale yi léeg-léeg da ngay dem ba sa bopp sax dafay fees waaye eh, ku ci mhm. am rek nañ ciy toog di ci waxtaan di def communication comme ni ko sëñ Dan di waxee di waxtaan ak suñu njaboot yi surtout nag euh, di di di di doxal yërmande maanaam ak ak mhm, mhm. ak maanaam euh, euh, cest à dafa am ñaari kàddu yoo xam ni ñun jullit yi dañ ko moom mais tubaab yi daf ñu dañ koo sàcc dañ ko dañ dañ ko dañ ko nangu ci ñun ba sax ñun dañ koo naye génne baat bu njëkk bi di cofeel muy amul ak yërmande c'est-à-dire yërmande ci njaboot gi yërmande ci suñu biir amour ci suñu biir di ko joxe c'est-à-dire di joxe amour léeg-léeg nit ki yow yow yow nga bëgg nit ki sopp ko te do tok ni ko sëñ bi wala soxna si sopp ni ma la bëggee wax ko lo loo da fay da fay da fay féexal xolam c'est-à-dire dañu dem ba nga xamni dañu xawa aigri suñu biir ba nga xamni

soxna Marème soxna Marème sa bopp rek nga xam waaye buñ la doon wax léeg-léeg nu ñuy dàkkantalee soxna yi da ngay waaroo. ah waaw ah. mais mais yow xoolal côté bu ci dugg Pape bu ci dugg leen di wutal ngeen wutal ñu benn. bul wax loolu soxna si. eh ma ne waaye yow xam nga li ci am solo rek li ci am solo mooy maanaam euh, couple bi di dund di crèche ndax ndax léeg-léeg nga gis ñu dund fan juróom fukki at. mangi gis image bu ma touché dem confinement bi dafa am mm. def sax ko sama mm. page Facebook Ben, bu am mm. quatre ans si si si man gis ko soxna <laughs> ans bi comme confinement bi ki dal ñew diko Si, bopam nekk fi bi di si di diko diko bi cest dire yooyu buñ ko toppee sunu sunu sunu sunu yonant sallallahu alayhi wa sallam Muhammad Seydina Muhammad buñ ko ci toppee tubaab yi mënuñu ñu ndax maanaam bu ñuy wax jonge moo gënoon a jonge ñëpp. Mm-hmm. foog ñuy ñu ñuy dellu si di wàcce sunu jëmm yi xam ni ay doomu aadama lañu nit ki këram bu neexee wala wala àndandoo yow sa morom sax bu neexee da ngay bàyyi dara fekki ko. ku mm-hmm. nekk bu mm-hmm. bàyyee dara ñu fekkante wàcce sunu jëmm yi léppay man loolu nag. loolu mooy indi comme bi sa bu neex tey ji dëkk nañu ci kër gi euh, daan nañu cest à parce que tam léeg-léeg ay moment ay hora daria dafay baax ci nit ñaari nit mhm. yuy toog léeg-léeg ñu séparé wu quelques instants nammantewaat dellu siwaat dafay defar couple waaye léeg-léeg dafa am ñoo xam ni euh, yàlla defalu leen tawfeex boo xam ni seen xool dafa xat léeg-léeg sax nit mhm. teg la loxo ñu jël loxo bi sànni te duñ ko tey yooyu mhm. dafay nekk ay gestes yoo xam ni cadre confinement bi mën na indi yenn dégâts collatéral yoo xam ni xëy na defaraat ko day day day day waaye lu ci mënti am rek dañu xam ne ay doomu aadama lañ léegi léeg ñuy waxtaan yaakaar naa ni bu ñu waxtaanee rek ci biir waxtaan lépp mën nañu mën naa juboo ñu ngi leen di sant bu baax di sant sañ Massaer soxna soxna Marème euh, Pape Mokhtar vraiment amoon nañu yéene laalaat yeneen thème waaye comme niñ ko waxee rek temps yi moom mel na ni comme am nañu jot ñu ngi ci kër yi

doo leen dégg ni yëfi kalaare la rek ñu ne gars yi mhm, mhm, euh, mhm. Euh, euh, maanaam noonu ba si yamal ak guardia arrêté na man de man de démb démb bërki démb bi may dem di defi spesa solidale dem naa ci kop bi nekk fii waaye la ma fa fekk ci nit ku ñuul daf ma daf maa yéem fekk ma fa presque nit ku ay nit ñuul rek ku nekk daanaka benn benn kii benn yëf lay jënd kii benn yëf daanaka mu mel ni dañuy génn pour bravarer li nga xam ni moo di décret bi te defe naa ni ki ñu toogloo ci biir kër gi sunu wér-gu-yaram la ñu bëggal kon mm. mbokk yi mm. euh, man dama koy wax ni kër bu fa juróom nekkee juróom yëpp bëgg a dem defi ay ay spesa le risque se multiplie nañ leen góorgóorlu bu ñu bu semaine bi toogee ñu ne tey jii diw mooy génn semaine bi dem duggi ku nekk la nga soxla nga bind ko jox ko bu ñëwee mm. séddale keneen semaine keneen jël euh, ñuy respecté consignes yi ñuy jox te ñuy fonkaat di raxasu maanaam euh, kenn bañ a yaakaar ni yëf yi euh, euh, maanaam mën nga cee mucc ndax nag loo xam ni jombul kenn ku nekk mën na laa dal euh, moytu def ciy baax loolu daal lañ doon mhm. wax tey jii mbokk yi damay jox rek sëñ ablaay ndax dañoo baaxoo jamono yi saa rek sëñ Ablaye defal ñu ñaan gi ndax mel na ni bokk na ci li nga xam ni moom rajo Xassida online da koy defal mbokki taalibe yi ay ay digle yu sëñ bi joxe woon ñu koy faral di ko def dimanche bu ne sëñ Ablaye kon ma jox la nga tëj ñu ngi leen di ziar leen sant leen baalu ax jërë ngeen jëf macha allah Direção, direção, sabe? Direção para mostrar, estão se metiendo, só não maremos. Jambar gen, waktu ya, dia le, mostrar direção, injaga kebe, yang lain biar bah, sin masair, sin lagi refet na, yang izar kam, waktu yang ni mereka mana konti hari lagi, bayi fal roja bi, ni ubah sin yang bayi fal, tak sona wajib, feli je tu batas kanan, ni bintang yang mitam direfet lukat di. Karena, dulu waktu terek, di harmi karau. mooy sëñ Tuubaa de dafa waxoon ne bala nga bala nga ne boole ñaar ñuy dencante de na ci ñett yi daje mooy na ku góor ki bëgg ku jigéen ki bëgg te ku góor ka tane ku jigéen ka bu ñaar waree manqué benn war a des bay manqué moom bu doon mukk góor ga tane jigéen ca ndax loolu bu dee bu amee dafa mel danga ngaa boole ñaari gumba ci biiru biiruk lëndëm Hmm. dara lu leer du mën a am hmm. ni lii mooy lii mooy sama ndigal kon mu mel ni kon ab sëy ni ko maam ni ko suñ mag ñi daan defee sax ndeysaan ah, dama takk sa doomi bàjjen jee boo ko togg dogoon naa ak yow sax du liggéey du du ndigalu sëñ bi ni ku góor ki na bëgg ku jigéen ki na bëgg te góor ki tane jigéen gis nga kër bu dee góor gi tanewul jigéen góor goo xam ne du wannu baat boo ne ko sa mbubb mi xonk na sax mun la bismillah boo ne ko sa bët yi sax nangaame nga ci mu def ko xuloo <laughs> mënoo togg ba mu ne la neex na mënoo sol mbubb mbubb donte moo ko jënd ba mu ne la jekk na jàpp na la kër ga du gaaw a neex dafa am loo xamante ni faaw li ñuy wax ak jonge moom du góor du jigéen rek jigéen da ko mais sëy c'est-à-dire ñi bokk sëy bi ñoo koy def mm-hmm. mooy seet loo xam ne dana neexal xolu ki ci des te ñëpp nag la war ça ne veut pas dire ne jigéen ji la war wàcc ku góor ki wala mu war ku mm-hmm. góor ki wàcc ko jigéen ki déedéet bu kenn rëy ci am na fa ci xoo xamante ni boo ci xasee ak ak nit wàcceel sa bopp du wàññee sa personnalité te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën fopp te danaan taf ak njabootam nee ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne moo gën ci njabootam tam kon de man te man maa gën ci sama njaboot kon maa gën ci yéen te moom lañ war a roy kon taf ak sa waa kër du wàññee sa personnalité ansi da koy yokk waaye jigéen ñett nan leen dellu leen ca lan leen yabe woon mooy muñal ndax dangaa bàyyi sa kër ndey ak sa kër bàyyi te kenn ku ne xam nga ne boo sañoon sa kër day sa kër baay mu nga ko jóg waaye heureusement sax laa koy tuddee du malheureusement jigéen dafa baaxoo suñu borom da ñu war koo denc ñu jël kilifteem teg ci loxol góor te rijaaloon xaw mën a ala nisaa yi waaye sama mbokk yi góor ñi bari jël armu boobu def ko euh, chasse garde man maa lay tabal àjjana maa yor sa àjjana waaw ki dul ki narta dem àjjana nan lay dugalee nit àjjana kon ça pas dire que ne jigéen ji leen la ko dénk tax ngay maltraité Sëñ Tuubaa dafa waxoon ni moytu leen kun may soxna nga jàpp dañ naa mayeb jaam hmm. ñaari jaam yàlla ngeen dañ leen a boole ngir ngeen jaamu yàlla hmm. kon nañ leen defaraat gis nga kër ku la ko dàqale mooy dala dàq muñ ndax bis bu jot ñu wax la loo xam ne sëy bi mën naa tas hmm. waaye wann baat ak bañ a tontu ak jëllale ak jéggale mooy tax kër ga wéy te ça pas dire que ne góor gi rek moo ko a dernièrement dañuy gis ni lu ëpp ci sëy yi ñuy defar te lu leer laa lay wax góor ga lañ naan muñal te bu njëkk jigéen ji lañ naan wax muñal muñal nag doo ko dégg mukk fu neex mooy bu dee danga ngaa bëgg a salvaguardia da ngaa bëgg a sauver sa mari mariage bi lu bari da nga koy wan da ngay wan yenn bàyyi di wañ wan yenn tont yi moytu ko te bàyyi daggasante góor bëgg a daggasante fa ma la fekk bu doon maanaam déedéet xoolal yàlla ci li sëñ sëñ kii kay wax na ko léegi ñun ñi ñoo dàq tooñ suñu borom fopp te ku wéet sa ruq xam ne dafa lu suñu borom loo xamante ne rey sax dajee jàng suñu borom di ñu musal di ñu suturaal di ñu teral di ñu wërsëgalal ngir xool ba xam dan am maanaam ak rëccu ak tuub ba sëy bi wëy ndax loo xam ne acte boo ci def rek ay ay ay ay xasanaat la ak sëy loo ci def ci lu baax rek loo ci def ci lu neex loo ci def ci lu rafet jàppal ni tuyaaba liñ la bindal loo xamante ni boo ko defoon feneen rey yoon rey la mhm. nañ ci bàyyi xel suñu borom ni ñu ko daganal Mhm. nañ bàyyi xel ni doomu aadama lañ yor waaye nañ bàyyi xel ni doomu aadama moo la yor ndax dafa am baat yoo xam ne danaa la ko nettali yow laylatul mihraj bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam riñaane ne suñ borom nga xam ni diggante bi nga xam ne ba mu yegg yeggatu yeggagut fa nga xam ne fan ko jox yenn ma yi nga xam Seydina Jibril mënu faa egg Seydina Jibril moo ko daan jàngal mu gis nee na nag woo xam ne dafa génn ci bën bën bu sew ba yàgg nag jël elam di bëgg a delluwaat ci biir bën bën ngir dugg ci te mënu caa dugg te du tax mu bàyyi mu arrièreaat bëgg a duggaat mënta dugg mu arrière bëgg a dugg mënta dugg Seydina yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni Seydina Jibril waa lii moom lu mu doon mën ne ko lii day mooy wax mooy fi mu génn mënu faa dellu kon nañ seetlu baat yi nga xam ne da koy wax nit mu blessé ko ilaa yow diin te bu heure bu la gisee di ko fàttali ko mhm. nañ moytu ko wax ju ñaaw ci mhm. couple tey xool suñu boroom tey analyser li ngay wax ba xam bu dee wax ju defar la wala déet wala wax ju yàq la wala déet ndax wax bu dee yàq ak lu mën a doon jóg wax leel cell nga mën a fen ça ne veut man damaa yar sama doom ci dëgg ba tax lu gis lu mu gis ne mën ko nettal ma mën ko wax déedéet du noonu du noonu mm-hmm. kon nan seetaat yàlla ci li ñuy def mm-hmm. buñ tegee su yàlla sunu kanam xool bis ba nga xam ne man te laa la njëkk a gis am cofeel cew ni ko si Pape Demba waxee mais sëñ bi ban kersa la war a am ci ah soxna si moom wax dëgg yàlla moom bëgg naa la ba tey man de wax dëgg yàlla yaa may nangam. c'est-à-dire dama baat yoo xamante ni diis lu gën tey day defar kër gi. li ma mi yow leer na la yaa ko xotti yaa yaa yaa yaa fay ñaw bi mu sol ah tey moom bi nga sol moom bii moom moo ma ci dàqal. bu mu génn rek nga ne ko moo ma ci dàqal. Mhm. lu la yàqal togg na ba noppi donte togg gi daal sa xorom. yow lekkal bay non man man de sax temps yi dama mam xorom sax dama jàpp ne daa gën a baax ci man. tofal nu mu la neexee waaye bu wax dëgg jotee taxawal wax ko nag ndax am na loo xam ne tam bay bal moo koy indi bu wax dëgg jotee nag taxawal wax ko ngir jëmmi suñ borom ndax mooy defar mm-hmm. mooy defar mooy defar kon ñu bàyyi xel loolu xam naa kon ñu sant ñëpp tàggoo xasida yaa rabbi bil Moustapha rek lii moo ko waaw ah, boo boo paree rek joxaale sëñ Mahamadan mu ziar parce que dama ko fàtte woon waaw waaw ah sëñ Mahamadan ginnaaw mi ngi ci biir kër gi mooy def ñaan gi bisimilah sëñ Mahamadan mooy sunu kilifa ñu ziar baax nag sëñ Bay Caam Bay Fall waaw ndeysaan sëñ Mouhamadou ginnaaw bi moom sëñ yaay ñaan bu noppee man sëñ Ablaye yaay ñaan kon jëfe ndigal rek waaw Mbacke jërëjëf man lima ci ci rek lu gàtt la di leen di sëñ ñu di fàttali bis bu tedd boobu nga xamante eh. ne ah, mbégte dëgg yàlla ñun ñi nga xamante ne yàlla daf ñoo boole ci sëñ Tuubaa lu am ci bis boobu lañ ko amee. Mm-hmm. muy alxames jii di ñëw di màggalu Daarul Mooti. Mm-hmm. Mm-hmm. muy Serigne Touba moo ko jagleeloon daa euh, euh, sëñ euh, borom daaru ndax bi mu demee ci liggéey bi ma ñëw sëñ Touba lam demoon dara yàquwu ci def lu ko suñ borom santon def na ko. lu ko doon tere gisu ko ca. bi mu ñibbisee it fi bàyyi woon dénkoon ko léppam. fépp dara yàqu ci te lum ko digalon def na ko lum ko tankam tànkam tànkam tegul ca mbégte mom moom la magal moy magalu daru mo fi sëriñ bi nak joxe ndigal ci nek way nek rek man nako fa def mm-hmm. kon ñuy sakku ci yeen ñi nek fofu ak ñi nek ci diaspora bi ak ñi dégg suñu kat fu way man di nek nako bayyi xel ba bu mm-hmm. lu man ci salatu ala nabi lu man ci alquran lu man ci ay ñu ñëpp ñu maasee def ko jagleel ko borom daarul max ci bi te ne moo mm-hmm. buñ ko defee buñ ko defee ba noppi nag ñu fasaale ca ah, ni nga xamante ne noonu lañ duggee ci nis fu saabaan muy mbégum sëñ Touba moomu ak maam Thierno mm-hmm. ñu gis ne mbir yi mi ngi tàmbali di wàññeeku ci ak gisin na ci ñëpp fasaale na continuer di wàññeeku jeex tàkk ba ci nekk mën a dox sax ndax ñaar ñooñu moom li ma wóor mooy ci nit ñi fasee te fas gi di fas gu dëggu li saafara lépp mën naa saafara wu kenn ku nekk dellu ci jàmm ndax ni ma ko waxee woon balaa la boo xamante ne nun dañ cee war a dellusiwaat sëñ Pape xam nga bokk nañ a waxtaan man a yow ba taay ñu ne la yàgg nañu interpeller état yi yàgg nañoo wax du ci waxtaan wi waaye yàgg nañoo wax di dàkkaafu nit ñi ci ni ko sëñ Ablaye Diop waxee léegi wax yu bon yi xasante yeneen yéenante lu bon li njabar gi jigéen ñi yëpp yoo xamante ne yu jaaduwul ci yoon la dégg naa sëñ Pape léegi mu wax ko xaw ma soxna Marème ma ko doon wax ne waajaluñ ñu ko xam nga tey nëga ni waroon naa fekk tey ñun Sénégal suñ télévision yi maanaam théâtre jeex fi mbaa boog ñu arrêté ko ba ci kanam waroon naa fekk film jeex fi mbaa boog ñu arrêté ko ba ci kanam mm-hmm. nëga ni ginnaaw téye nañ nit ñi ci biir kër yi ñuy teg alquran di teg ay xasiida ngir won nit ñi ci ne am na lu fi nekk loo xamante ne dañ ko war a dindi waaye même fi toll ñun ñoo ngi téye suñu njaboot yi ci biir kër gi xam naa ay yeneen thème la yu gudd gudd yoo xam dis na ko waxtaane mais ñi ngi téye suñu njaboot yi ci biir kër gi mais liñ leen téye ñun ñëpp a jàq parce que xale yi ci téléphone yi la ñuy fanaan ci internet bi te duñ ci gis dara lu baax ci télévision yi film yi lañ te duñ ci gis dara lu baax te buñ demoon jàngi xëy na loolu ñu doon gis ci télévision yi buñ jàngi woon ba sonn ñëw nga géttan teel a loolu dana leen raw te fi mu toll mënatuñ ci dara ñi ngi ñu ko jox far force di ko consommer te mënuñu ci dara kon ni rek sëñ Ablaye boo ñaanee ñu tàggoo waaye li ñuy ñaan daal ñun te di ko ñaan suñ boroom mooy xamal ko nañ ne ko tooñ nañ la ndax li tax ñu tooñ la mooy danoo doyadi doyadi moo tax nuy def loonu tere waaye tey jii xam nañ ne indil nga ñu loo xamante ne indiloo ñu Pape Demba mu yor ak fetal jàkkaarloog ñun indiloo ñu Soxna Mareem mu yor fetal jàkkaarloog ñun waaye lim ñu indil malaaka mi ñu indil mënuñu ko sax a gis muy a virus bu tuuti boo xamante ne buñ la ko doon won yow doo ko gëm sax ne lii la mu jaaxal adduna bépp ba kenn ku nekk tëju kenn ku ci nekk nekk sa kër kenn ku nekk nekk ci jaaxle ñëpp di ko waxtaane kon mu wóor nañu suñ borom mi nu indi loolu tey jii bu nu bëggee teg lu metti mën nañu ko teg waaye na suñ borom moom na xam ne nun ñoo matut ay jaam yu doyee di lañ dañuy continuer di ko tooñ ba ba adduna yi tukki waaye tooñ googu nanu koy jéggal rek su ko defee mu jéggal ñu ko dindil ñu jafe-jafe yooyu bañ mën a dellusiwaat téye njaboot gi téye yëpp su ko defee rek sëñ Ablaye Diop ñaan ñu nangu ñaan ñun ñëpp jox nañ ko ci ndigal ñaan ci barke xasida yi sëñ tuba bi nga xamantene mom la am non te di ñaan mu woye falal ñu lepp na ko waxe woon ci tambali ba ci lool lay teje man yeen sama mbokk diaspora yi na ngeen xamne ne man mi di sëñ mahmoudan man ma ngi leen di bàyyi xel te yeen na luma am ci sëriñ tuba yàlla na ko jokkal yeen luma am ci sëñ tuba wala am ya am ak yeen te buma sañon sañoon yéen ngeen nek ci jamm kaddu gu jog nak dal ci seen kaw mel ni sama kaw nak ndax naqari na ma te it xam naa ne méritoowu leen ko parce que xam naa li ngeen di daj xam naa li ngeen wane Sénégal xam naa exemple bi ngeen fi joxe xam naa njariñ li ngeen am fii ci réew mi kon njariñ loolee man moom day bëgg rek sunu borom sàmm leen ci lii ba delloo leen ca boo lëgee ñi jot a faatu faatuñu ci feebar bi ak ñi faatu ci feebar bi yëpp yàlla na leen suñu borom xare àjjana ndax suñu borom dafa wax ne balaa bu amee ku ca faatu bu dee jullita ma tax daf ne fitna du yam ci loolu la njëkk a wax dafa wax ne fitna du yam ci bopp borom maanaam ñeneen nañ ko tàmbali ñoo xam ne saw yoon nekku ci waaye jullit bi nag nam xelam dal ndax bu faatoo ca wérus ba moom nit ku saxit la directement àjjana la jëm jërul sang jërul def dara bu dee yéefar bi nag suñu borom daf koy nattu ngir weddi ko mu weddi woon kon ñi ci faat yàlla leen suñu borom tàbbal àjjana ñi ci jotuta faatu yàlla buñ faatu yàlla na wéral ñëpp nga xamante ne ay li ñuy tamit dañ nekkandoog ñoom foofu ci réew mi ñoom itam te nekkee ci musiba nun nu nekk ci musiba yàlla leen suñu borom génne ci musiba moom bañ nekk ci jàmmu wasalaamualeykum wa rahmatulah sëñ Ablaye kon defal ñaam rek. ak a waaw jërëjëf naa sant sëñ Mouhamadane rek ci woyof gi ndax dama leen di wax ñu war a diis daal diis ñu ñoo ngi koy sant bu baax a baax. di sëtu maam mm. Cerno Birahim di sunu kilifa di sunu xarit lool nag di sunu mbokk ñoo ngi lay ziar bu baax ziareel ñu sëñ Abdul Aziz ñoo ngi waajal kon màggal gi ci nisu Chaban gi. di màggal maam Cerno borom daru mi xamni mom la moom la suñ Tuubaa dénkoon njaboot gi te dee buñ Sonko ko laaje kon da melni ne noonu ngi ci loxoy wa daru musiba de mhm. waaw señ sant ci lool nak ñoo ngi sant bu mhm. baax baax na ni ko waxe rek yalla na suñu borom wacc jàmm ci jullit ñi barke sëñ Tuubaa wacc ko ci rew yëpp wacc ko ci ñëpp njëriñ ñëpp rek barke xasi rek yi nga xamni ne sëñ ko bindoon ñu barkeelu ci kaddu yi ndigalu sëriñ barke sëñ Tuubaa kon ku fay toll rek na wax amin te fas ci li mu bëgg ngir xasida gi moom àttan na lépp sëñ Tuubaa moom fàggu na lépp auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waaleykum assalaam wa rahmatullahi fama fahaakum hadhihi al abyat shifaan min kulli daa'in wa hisnan hisnan min makaa'il jamii al ahdaa'i ya rabbi bil mustafa al muxtaari min mudarri shafi ummati fil bakki wal hadari ali salli bi taslimin bila hadadin بالآل والسيب والسنان من الدرج خذ أمة المصطفى كما يجر لهم سوى العبادات واحسنهم من الشرر واترف, لخل... واترف لخيرهم شيطان في أبد ولتكفهم كل من يشتو من بصره في الداء عن مرض الجميع به واضرب لهم موجبات الأمن والبشر وجل قلوب ذوي الإسلام في أمن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 أصلح أموري كات الخيور بلا كداي يا من أجاب من استجاب هبل الإجابة في سنداي بركة بروم تبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم من سلام محمد العزيم وسادة الناس كرب حسبي الله